tàmbalee. pérékele réew mi ma se ma ma se pérékele réew mi ma se pérékele ne zo pérékele zo zo pérékele zo. non. Momo nous sommes en direct. dama foogoon ne kii dama foogoon ne on a gagné ngay commencé. pérékele réew mi ma se ma ma se pérékele réew zo zo zo pérékele réew zo zo zo zo. mais moom pérékele réew pérékele réew. moom lundi matin nit ñi dañuy sonn. yow loo nekkee moom mu yeewu. ànd ak kàttan ndox ak café Touba. ah bëri na ah, en tout cas ñëw nga ak cawarte yow moom jarul sax ma naan la nuyool ñu ngi leen di nuyu mbokk yi am nañu mbégte ak bànneex ñëwaat ak yéen euh, ci seen plateau ce matin c'est à nous comme tous les matins vous êtes bien sur la 2STV la première chaîne de télévision privée du euh, Sénégal borom slogan yu neex yi wala borom slogan bu neex bi originalement votre noonu la ñuy ñëwee ak yéen euh, ci seen matinale bi nga xamante ne menu bu varier la ñu leen di indil pour vous faire plaisir Khadija bonjour. bonjour Thioro. tu vas bien. super et naka week-end bi week-end bi va on a profité pour se reposer defar suñu bopp quand même pour revenir un peu en forme on essaie hein. et puis euh, seetaan match bi. ah oui on j'ai retrouvé la fibre patriotique hier. voilà non, hier moom tu étais vraiment dans non, le match non je jure. <laughs> Mamadou Mbaye. bonjour naka mu. ça va alhamdulilah loo ne. sant yàlla yow dafa mel ni victoire bee la taxal ak kaaju ni. waaw tey nag moom sama xol dafa sedd sama xol dafa sedd ndax gaynde Sénégal dañoo gagné. xol sedd na lool yal na leen yàlla lafal cat. amiin que si si Sénégal nañ noppi. ku nekk ngi wax naan Aliou Cissé lii nañ noppi. ni ñuy def baax na yal na ñu yàlla lafal cat na xol yi booloo rek ñu gañe bu loolu weesoo kontaan naa si yéen ah. di leen siyaare bu baax a baax di am mbégte kontaan di jàkkaarloo ak yéen ci suba si jot ce matin c'est à xale yi nga xamante ne ni leneen ñorul leen lu dul di leen bégal lekk yéen suba si jot nee nañ leen ñun la ak yéen xeex bu du jeex. Mm. waaw mënut a <laughs> ñàkk euh, mi ngook dinañ ñëw ci kanam tuuti ak wàllu ko bien-être éphémérite euh, fenêtre bi ñu jagleel kan bi waaye naka xam ngeen ni bés ni tey la fi génnoon àddina moom doomu Pikine boobu nga xamante ne bi mu dëddoo ak léegi euh, jàpp nañu ni naqar la fi bàyyi waaye bàyyi wu fi gàcce nongaloo dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti dinañ ñëw ak yéen ci wàllu tàggat ci yaram li ci ëpp solo bokk na ci Coupe d'Afrique des Nations atum 2017 foofule ca Gabon Sénégal dóor na démb Tunisie ñaari bal ci dara mu mel ni nag jël nañ suñu revanche non seulement ci waaye ci Henri mi nga xamante ne yóbbu woon nañu fi compétition ba pare daal di daw ba ñu fa dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ak Babou euh, Ndour waaye itamit dinañ ci ànd ak Adama Kandé mi ñu teewal foofule ca France ville dinañu ñëw ci lu mbedd mi wax ak PND euh, Ndiaye indilaat nañu tey lu am solo dinañ ci wax ci kanam tuuti wàllug actualité Pape Alé Niang le très grand Pape Alé Niang sera également sur ce plateau dinañu waxtaane ak ñun coow li nga xamante ne moom am ca parti socialiste naka noonu coowul parti démocratique sénégalais Farba Ngom euh, wala Farba Senghor plutôt mi nga xamante ni yóbbu woon nañu ko ca conseil de discipline bu parti bi dinañ ci waxtaan reportage yu bés bi Khadim Mbaye dina fi ñëw ci kanam tuuti découverte c'est l'affaire de Momo Seck ce sera pas en reste dinañ ci waxtaan loolu lépp lañ leen fas yéene booleen mbokk yi ngir bégal leen ci li nga xamante ni moom moo di ce matin c'est à nous il sur le plateau avec nous Babou Ndour bonjour Bonjour, bonjour et félicitations. Merci à vous, félicitations <laughs> mais maa ngi leen nuyu di nuyu Kaja di nuyu sama copain Modou Mbaye bëggee naa la sànq ma maa ngi ñëw yor sama moto di da benn taxi bëgg ma def nii <coughs> yuux taximaan bi maa man taximaan yi garaaw taximaan yi nañ leen baax ba leen caaxaan yi noonu lañ dëkkee ba pare yuux la ci taxi bi waaw nee naa leen taximaan yi yéen lënd ngeen di bañ <laughs> bilaay sunu lënd bi dootuñu ko gaaw faat waaye baax na duma si wax man <laughs> mais bon waaw ni comme Coro ni nga ko ni nga ko waxee rek te li nga xamante ne moo di kan bi la ñu nar a waxtaanee ñu nar ci invité ki nga xamante ne moo di Malick Diop nekk ancien international en même temps nekkoon na coach euh, ISO nekkoon na coach aussi tam GFC. bu fu ñëwee bu ñëwee ñu waxtaanee tamit bu fi ñëwule tamit euh, mooy loolu waa ñu waxtaanee ki xam ne si dara sànn marché bi yow sànn nga marché bi kajaar sànn marché moom sax ah, waaw te élément yaa ngi fi du lu espoir am nañu <laughs> moom <laughs> moom si benn tànn bi on a regardé le match hier dans une très grande ambiance on était pratiquement tous <laughs> ensemble Momo Momo tu déranges Momo bul dajji fii salaamaaleykum dama tardé Coro na nga def ça va. foo seetaanee match na nga def ça va ban match. ñëpp Coro ah, doon seetaan match bi ñun ñëpp yow gis ban match ngay wax Mourou Mbaye ça va na nga. Sénégal Sénégal tuuti. ah bon. Ah ci compétition. du leer kon instant ñoo jël coupe bi wala. premier match jël coupe. premier match jël ah, euh, wu la torop yow football yow Formule 1 ngay. seetaan naa match bi démb neexoon na de. sama xaaral ma wax sama joueur bi. kan la hmm. Angleterre boo fa demee. dix maillots yi gën a seer. attaquant <laughs> bi. Sadio Mané moo dugg Sadio Mané. <laughs> dafa yëg lu xew. d'accord euh, tey en termes de découverte euh, on va découvrir quoi. Euh, aujourd'hui en termes de découverte on va discuter avec quelqu'un qui était déjà venu. Euh, sur dans ce matin c'est à nous alors mu delluwaatoon euh, fu muy évoluer en Europe liggéeyaat tuuti ñëwaat Dakar indi beneen affaire. Baye Gallo. c'est benn artiste la musicien chanteur et musicien en même temps. perkele zé même zé la gagné de. tërëm solo boobu laa bëgg nga arrêté ko euh, ba ñu xool li nga xamante ne moom moo di bien-être ba pare tey li ñu leen andil euh, Mamadou euh, xam nga nag daal yi ñuy sol dafay faral di ñu andil li nga xam ne moom moo di koor. koor ci suufu tànk lay nekk yenn saa yi nag mën na sax désagréable mën na sonal également ki nga xamante ni moom moo ko am ba tax rek bëgg nañu leen andil ay remèdes yu mën a tax ngeen tàqalikoo wala ngeen faj li nga xamante ni euh, moom moo di seen euh, yooyu le ba tax mën nañu def li nga xam ne moom moo di infusion bu euh, camomille camomille la ñuy daal di jël def ko ci benn taas boole ko ak ndox bu tàng daal di ci sotti li nga xamante ne moom moo di jus de citron benn kuddu bu mag rek ngay natt euh, dëw euh, li nga xam ne moom moo di limon euh, daal di ko ciy def daal di jël li nga xamante ne moom moo di benn doomu laaj boo ko xoolee ba pare daal di koy dëbb ba mu baax boole ko ci ba mu xaw a pate bu patewee nag nga daal di ko jël di ko lal ci koor yi bu ko defee mën na la dimbali nga tàqalikoo ak li nga xamante ni moom moo di koor mm. waaye tamit am nañu beneen remède bu nga xamante ni mën nañu dimbali ci koor maanaam ñu jël li nga xamante ne moom moo di vinaigre daal di ci jël di ko faral di ci tremper suñu ay euh, loxo waaye boo jëlee également feuille yu poireau feuille yu poireau nag boo ko jëlee da nga koy mélanger ba tey ak a vinaigre pendant tout une journée bu guddee danga koy jël taf ko li nga xamante ne moom moo di ci koor gi boo amee band nga def ko ci ngir mu daal di ko euh, tenir ba guddi gi yëpp daal di euh, jeex bu ko defee mën nañu dimbali ci li nga xamante ne moom moo di euh, koor mhm. waaye tamit mën nañu jël li nga xamante ne moom moo di benn doomu aspirine bu nga xamante ne du effervescent maanaam nekkul bi fuur nga daal di ki def ay guttu citron def ci tamit li nga xamante ne moom moo di huile végétale boo mën a am baax na bu ko defee loolu pomaat la bu ñu mën di appliquer ci suufu tànk yi mën nañu di dimbali ci li nga xamante ni moom moo di corps euh, parce que nag corps Mamadou nekk na lu nga xamante ni. Mm-hmm. lu sonal nit ñi la. donc mm-hmm. pommade boobu le boo ko amee mën nga ko diw ci sa suufu tànk jël bande bi daal di ko ci def euh, bu ko defee bu ñu ko dee faral di def di def mën nañu tàqali ak li nga xamante ne moom moo di corps mm-hmm. am na ñu koy leel li di jël laamak ak yooyu di leel li bu ñu koy faral di def. parce que doonul lu gën non seulement application bi ñu ci def laam bi gënul mais également lell bi ñu koy lellu tout le temps day ñëwaat te lu muy gën a ñëw di gën a xóot mhm. li ngay gën a li muy gën a xóot affaire bi di gën a ñëw donc mën na dem ba jural ay jafe-jafe ci sa tànk donc nañu faral di jël li nga xamante ne moom moo di remèdes yu naturels yi mën nañu tàqale ak corps yi sans pression jarul yàkkamti jarul dara euh, boo ko dee def euh, ndànk-ndànk di nga tàqali ak li nga xamante ne moom moo di corps donc ci wàllu loolu la woon euh, tey ñu wéri éphéméride ku juddu woon tey wala lu manqué woon tey wala lu rëy woon tey ci bis ni tey ah, nanu ko xooli éphéméride bi nag Ndiaye xam ngeen Vincent Auriol Vincent mooy kan je pose je, je la question qui connaît Vincent Auriol est-ce que du footballeur <laughs> il a pas été président de France si <laughs> nee na vous deux mënoo interroger interroger si président il a été élu président de la République en France c'était le 16 janvier en 1947 moom Vincent Auriol. 47 47. xanaa moom yàggul ci pouvoir bi moom amul histoire torop torop de. histoire amit bu ñu ko déggee. en tout cas célèbre mi ngi nii moom lañ def en France Vincent Auriol est élu président de la République c'était en 1947. bis ni tey affolement général la amoon ca Belgique. affolement lan affolement affolement moomoo affolement général. laaj ma lu waral affalement ba. waaw kon wax ko kon. pénurie de pomme de terre. <laughs> pomme de terre mel moo manqué woon Belgique. <laughs> non sérieusement. mais wax nañu dëgg. 16 janvier 1976. de pomme de terre moomoo. wax nga les frites augmentent une fois. <laughs> foofu ca Belgique. parce que xam nga ñoom seen tradition moule frite la. Ah, <laughs> moule donc bu ñu amul pomme de terre dañuy tiit. moom moo pénurie a fa amoon pénurie mel ni àdduna tukki pénurie. <laughs> non. moo fa amoon mi ngi nii nag ñu def ko histoire la. eh ben dis donc. dis donc dis <laughs> de pomme de terre en 1976 pénurie de pomme de terre en Belgique. ñu dof ñu dof les frites augmentent. Philippe yooyu yokk les Philippe moom mooy rey baabu du les Philippe augmente baabu une fois comme les Philippe augmente et c'est fini pour les férimérite. d'accord d'accord espérons que. fale yam comme ñoom Philippe moo leen di afale. Eh, bon ku nekk ak. Euh, bu fi ceeb pénurie moom fii. Khadija dem ci man. déedéet dama ñu ak see guñ ci man. ci moom laa bëgg a ñëw. waaw ataay euh, moo may xeeñ. nan. nañu xool kër gi moom toute façon. Euh, ay bagages yu bees laa fi teg ci kër gi. bàyyi lu la xeeñ nga wax ko. d'accord léegi nañu xool ndax euh, nañu xool ndax méng ak yenn ci ay éléments yemb na comme sax bu ko defee li ñu li ñu àndil tey lan la kan nga ñu leen tey. tey euh, moom nee nañ sànq Modou Mbaye wax na sànq lu am solo vingt 27 ans mi ngi nii ñu toog son gagné ki nga xam ne mooy équipe bu moom il est âgé de 27 ans moom mi nga xam ne moom ñuy waxtaanee moom nekk di sol numéro cinq ci équipe nationale bi. nekk Diao euh, Baldé Keita <laughs> xool mu naan Gana nee na ma Diao Baldé Keita Idrissa ah, Gana Gueye Idrissa Gana Gueye la ñuy waxtaanee mais comme te élément bi yembagul dañuy bàyyi ñu dem xool revue de presse ñu bàyyi ñu ñu xool revue des titres en attendant bu ñu paree ñëwaat ci ñëwaat également ci fenêtre bi nga xamante ni moom la ñu jagleel tey dem ci yàlla euh, nongolo euh, Mamadou mel na ni nag tey moom journaux yëpp ay sportif la ñu waaw tey moom c'est la revue de presse Lyon <laughs> tout court. mi ngoog. Lyonnais Lyonnais. d'accord revue de presse Lyonnais wala Tanière wala. Aliou Cissé Samba douzième gaynde wala Aliou Cissé noo ko bëggee baax na. waaw mi nañu dem xooli la revue des titres avec Mamadou Mbaye et Momo Seck. ñu commencé ak le quotidien yëgle kaay. Momo Seck le quotidien yëgle kaay tey jii mu ñuy xamal ni gaynde Sénégal daad na ni am ndam lu rëy ci seen diggante ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy waa Tunisie. Mhm. Momo Seck doon na jongante boo xamante ni comme ni ko Khadija waxee léegi rek toog nañ lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar amuñu ndam ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy waa Tunisie. Mm. mu mel ni succès aigle du la li nga xamante moom la quotidien yenn kaay daal di. moom la quotidien yenn kaay daal di xam ne tey ji victoire des Lions face à la Tunisie CAN 2017 waaye yëg nga ni <clears throat> fa ñu demoon démb ca Louga. Mm-hmm. dañ faa def pompe à gaz ca meeting ba. ah maa la wax lii. Ah léegi nag xam nga ñañ lañ ko jiiñ. waa kër Moustapha Diop. waa kër Moustapha Diop men quotidien Laas. Laas moom it mu ñuy wax li Sénégal am na ndam waaye ndam li laataa mu ko am métti woon na loolu ci ñoom ndax ñooñu Aliou Cissé yi démb sonn nañu lool. ci match bi nga xamante ni nii football nañ ko Aliou muy wax nii ma équipe bi dafay am moment boo xamante ne ni dañuy jékki-jékki faible am moment boo xamante ne dañuy jékki-jékki fort waaye loolu ci football la bokk. Mm-hmm. sunu sunu gaynde gi nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Diallo moom dañ koo daal di def l'homme du maanaam moom moo mën ca match su démb ba waaye moom mi ngi wax ni bu kenn yëg sa bopp bu kenn gis ni yow la nañ nañ delloo lépp xel yi rek. te bokk li nga xamante moom la ñu bëgg Sadio Mané mu ne am na ay mbir yu bari yoo xamante ni ni war nañ ko yokkaat ci équipe bi. quotidien d'information sportive Vox Sport. Vox Sport moom moo sekk tey dikk ak ñun mu ne les lions font le job. Sénégal daal dinay am ndam lu rëy ci digganteem ak ki nga xamante ne ni moom mooy Tunisie comme ni ñu ko waxee woon léegi ñaar fukki at ak juróom-ñaar. Mhm. toog nañ ko amuñu ndam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Tunisie ci ab compétition waaye li ma gën a neex démb ci journée démb bi. Mhm. mooy Real de Madrid dañ koo dóor. waaw ah bon waaw ginnaaw bi mu toogee ñeent fukki mas te kenn gañewu ko moom Real de Madrid démb dóor noonu. 40 match ci ko dóor de. ñu dem ci Sud Quotidien waaw Sud moom euh, Momo sekk dikk ak ñun ba tey ci CAN bi nga xamante ne ni moom la gaynde Sénégal nekk fi mu toll mu ne la Sénégal les lions assurent dans la douleur loolu mooy li nga xam moom le Quotidien bi daal di xamle Sénégal daal di nay gagné nga xamante ne moom mooy euh, Tunisie 2-0 te le Sud Quotidien ci xëtam njëkk mu ci nataalu Sadio Mané Diao Baldé Keita xale bi nga xamante ne ni moom la nu war a waxtaanee tey moom Idrissa Gana Gueye Adama Barrow mi nga xamante ne moom la ñu fal président ca Gambie yëg nga ni Adama Barrow ba nga fële. ca mii fii ci ci Ndakaaru Njaay loolu moom doy na waar ba ba koy fal moom quotidien yëgle kaay Vox Populi Vox Populi moom moo sekk tey dafa ñoo dikkal ci ndam li nga xamante ne ni Sénégal daal dina koy am mu ne une victoire laborieuse des Lions Sénégal daal dinay gagné Tunisie ginnaaw bu ñu toogee ñaar fukki at ak juróom-ñaar ca gagné wuñ ko Aliou sa ci biir soleil bi mu ci biir journal bi mu ne xamal ni lenn kontewul lu dul ndam li nga xamante ne ni moom la am moom aadama Barrow mi la doon wax léegi ba tey moom it réfugié na ñëw daw daw si na enquête yëgle enquête yéen a mu ne l'art de gagner sans convaincre maanaam Sénégal daal gagné nañu te dalal lu ñu xel yi waaye loolu yëpp rek xam naa ni waxtu waxi waxi waxi journaliste laa koy jàppee man ñuy wax ni ci li nga xamante ni nii mu ne le lions ont dû leur salut à la bonne prestation de leur portier Sénégal war na noo jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Diallo mi nga xamante ni moom mooy seen góol Aliou Cissé mooy wax ni gayndey Sénégal am nañu mental boo xam wala seen bopp daal bopp gërëyee la voici le journal qui crée des champions nee nañu. kooku mooy sport on sport. on sport sport 11 journal bu bees la. sport 11 eh, ab journal bu bees la boo ah. xamante ni nii. ñëw na ci Sénégal Momo Seck moom it dikk na ci match bi nga xamante Sénégal daal dina koy gagné démb ci digganteem ak Tunisie mu ne les dieux du football bénissent le Sénégal ñi nga xamante ne ni mooy yàlla football yi daal ñoom daal démb jàppale nañ lool lool lool lool Sénégal Momo Seck. bu ñu jógee foofu dem ci la tribune yëgle kaay. tribune yëgle kaay Momo Seck dikk ak ñun ci ndam li nga xamante ne ni ba tey Sénégal daal dina koy am ci seen diggante ak Tunisie. Abdoulaye Diallo moom mooy le sauveur moom mooy ki nga xamante ne ni moom moo tax ba Sénégal daal di am ndam li nga xamante ne ni moom la ñu am ci tribune yéen a wax bonne entrée devant la Tunisie. l'observateur Modou Mbaye. l'observateur dikk ak ñun ci match ba tey bi nga xamante ne ni moom moo doxoon ci Sénégal ak Tunisie wax la Sénégal ba la Tunisie deux buts à zéro ba pare daal def ab point d'exclamation Aliou Cissé mi ngi ci biir yenn bi mi ngi ñuy wax ni moom ba tey nanguwul wala bëggul benn yoon erreur individuelle yi nga xamante ni ñu ngi koy def Modou Kara Mbodj xale bi nga xamante ne ni moom moo dugal deuxième bi bi démb moom mi ngi wax ni metti woon na lool ci match bi waaye it. palaat bi nga xamante wala jàpp yi nga xamante ne ni moom Abdoulaye Diallo jàpp na ko daal dinay tax Sénégal daal di gën a génn ci match bi waaye yéen kaay bi mi ngi wax ba tey mun a jaaw Balde Keita bi mu génnee dafa daal di mer ba fëttu le soleil yëglekaay dëkk ak ñun ci li nga xamante ne ni moom mooy match bi ba tey moom moo sekk mu ne Sénégal daal danoo daal di suqee suqee suqee suqee suqi suqi suqi suqi eegalu Carthage yi ba ñu set wicc dara desatu fa dara desatu fa ki nga xamante ne ni moom mooy njiital réew mi moom Macky Sall kon Mariam Faye Sall mi ngi jaajëfal bu baax a baax gaynde yi di leen wax ni mhm. jàpp leen ko foofu ngeen ko jàpp foofu la incha allah moom kon Mariam Faye Sall yi nga ni pose de la première prière des brises de l'âme yéeguma ko woon foofu ta Saint-Louis yéegul février lay doon de. février bii nii nii ñu jëm si. maa la wax lii bu ñu jógee foofu dem si quotidien information général zoom info mu ne dafa am ab messi boo xamante ni démb dañ ko daal di tuddee. Diallo moom Abdoulaye Diallo lay wax mu nga xamante ni moom moo nekkoon góolu équipe nationale démb mu mel ni daal Sénégal daal dinay am ndam loo xamante ne ni dootuñu ko fàtte ba ba faw ndax ndam loo xamante ni ndam lu am solo la Momo Seck bi nga xamante ne ni moom mooy François Hollande ci ci sommet France Afrique bi nga xamante ne ni amoon na ca Bamako moom daal mi ngi doon tàggu ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay père africain am yi quotidien information générale les échos Modou Mbaye les dikk ak ñun ci leneen loo xamante ne ni laataa nañu ñëw ci wàllu tàggat yaram bi amoon dafa amoon ay nit ñoo xamante ne ni dañ leen doon jàpp maanaam ñu leen di wax ay mongol ñu leen doon nappe foofee nga xamante ne moom moo nekk ci géejawaay waaye oto ba nga xamante ni moom lañ doon jàppee ñu ne kenn ci goroy Abdou Diouf wala gorob Abdou juuf moom moo daal di moom oto bi mm. waaw loolu de lañu wax du samay kàddu waa les échos ñoo ko wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy gaynde Sénégal ñi ngi ci biir les échos ba tey ñu ne les lions gagnent dans la douleur xale yi Sénégal daal gagné nañu waaye match bi metti woon na lool Kara Koulibaly ñu ne la la paire qui fait hmm. ba tey ñu ne Abdoulaye Diallo la sauveur. la colère de Diao Baldé Keita Aliou mu ne ñeenti défenseurs yi di mu doon xaar ci ñoom gisagu ko. libération yëgle kaay Modou Mbaye. libération yëgle kaay daal di dikk ak ñun ci leneen loo xamante ni nii bokkul ak mbiri tàggat yaram xanaa muy lan muy coowal Gambie gi nga xamante ni nii jamono yi. moo nekk fépp foo ne moom fa la grand place am moom moo sekk ñu ne Yaaya jàmme daal daal dinay teeru waa CEDEAO waaye ginnaaw bi ñu ñëwee Yaaya Jammeh waxu fa dara ay naxas ak rek la fa nekkee woon di mm-hmm. naxasaale di jaar fii dugg fii génn fee moom Yaaya Jammeh moo bàyyil moom Yaaya Jammeh journal bi mi ngi ñuy xamal ne daal wax dëgg yàlla waxu fi dara lu am xorom quoi Yaaya gars yi nee nañ waxoo fi dara lu am xorom le journal dont l'équilibre est son credo Rewmi Quotidien Modou Mbaye moomoo sekk Rewmi Quotidien dikk ak ñun ci juróom-ñetteelu anniversaire bi nga xamante ne nii moom la am moom réew Rewmi Quotidien mu mel ni daal tey jii mu mel ni daal moom réew Rewmi Quotidien am na juróom-ñetti at ah waaw te trophée bi nga xamante ne nii moom mooy trophée wu homme de l'année bi tey ñu ngi ko jagleeloon ki nga xamante ne ni moom mooy Mbagnick Diop ban Mbagnick Diop première ah, dame suñu yaay Marème Faye ah, Sall dama gis photo Mbagnick Diop kor papa Marème kor papa Macky waaw maa la wax lii waaye Mbagnick jóob ci ci sole bi mi ngi wax ni l'homme de l'année est une kon dikk nañ ci ki nga xamante ne moom mooy Yakham mbay mi nga xamante ne ni sole bi mi ngi xam xamle ni moom moo sekk mi ngi ci diggante sincérité ak sobriété mhm. mel na daal moom mi ngi ci jeexi jaaxa mhm. kon dikkal ñu dem ci leneen ay quotidien du sport stade yëglekaay avec S. stade yëglekaay avec es dikk ak ñun ci gaynde Sénégal yi nga xamante ne ni am nañu ndam demb ci seen diggante ak Tunisie. Mhm. mu mel ne ndam la loo xamante ne ni wax dëgg yàlla soxla woon nañu ko lool ndax gaynde Sénégal toog na ñaar fukki at comme ni ma la ko waxee ak juróom-ñaar te amuñu ndam. Mhm. ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy tunisiens yi Abdoulaye Diallo mi nga xamante ne moom moo nekkoon góol bi démb ci équipe nationale bu Sénégal. moom lañ daal di def l'homme du match waaye yëg nga ne Zimbabwe démb sonal na lool Algérie mhm. ku ci bëgg a xam lu leer yëlal yëgle kaay bi le quotidien des arènes sénégalaises sunu lamb dont El Hadj Bekaay dont El Hadj l'expert national ñu jàll ci loolee nga xamante ne ni moom mooy sunu làmb moo sekk dikk ak ñun ci diggante nees ak Sa mu mel ni ñoom daal dina amal seen jàkkaarloo gu njëkk nees nee na moo dàq bëre. Mhm. moo ëpp doole te it moo gën a ñeme ki nga xamante ne ni moom mooy Sa maa la wax lii. lamb neex na. nee na dina metti lool dina metti lool nee na Sathiès waroon naa dikk ca jàkkaarloo bu pour ñoom ñaar ñu mu ñu tàngal ko ba mu tàng jër nee na moo mën Sathiès ñetti yoon. Hmm. Sathiès moom daa daal di palante ki nga xamante ne nii moom mooy ne samedi foofu laa amee woon ca Linguère lutte simple mu mel ñu ni Nicolas sort le chéquier 10 millions en jeu le 12 février. yëngal yi. lutte simple. dix millions en jeu vingt cinq millions au mois de juillet. maa la wax lii ki nga xamante moom mooy Forza nekk ci écurie bu Fass moom mi ngi ñuy xamal ni moom daa dund ba mu jeex li nga xamante moom moo nekkoon Ker 86. loolu mu nekk kan des lutteurs ci yëglekaay bi nga xam moom mooy sunu làmb mbokk yi nii la demee woon tey ci la revue de presse lyonnais di leen big up thank you very much. mi ngoog euh, la revue avec euh, Moussa Sène euh, incha allah Khadija euh, ma di ko ma dem ma ñëw <coughs> ma ñëw waaw. acca mi ngoog wax na leen ko sànq tey nag elle nous dresse le portrait de Idrissa Gana Gueye beneen lion bu nga xamante ni moom également mu ngi ci tanière bi euh, ndaw la bu nga xam ne wax nga ko sànq il n'a vingt 27 ans macha allah waaye mi ngi bëggal jamono. mi ngi bëggal jamono moom Idrissa sa Gueye la moom it Idrissa Gana Gueye mi ngi bégal jamono te démb wane na boppam bi te bu ak invité am wala ak ñi nga xam ne ñoo nekk si plateau bi. yow Babou Ndour ak invité am leen a mus a jàngat loo. du yow portrait boo mus a def mën nga ko jàngat loo. waaw loolu laa lay wax moo tax ma may mi bi mais laata dem seeti leneen à ah, Thioro. d'accord euh, mi nga ko wax nañ leen ko janvier atum 2005 la génnoon àddina moom mi nga xamante ne moom moo ji nongoloo doomu euh, pikin bi mu mel ni fukki at ak ñaar ci euh, tey bi mu génnee àddina euh, xanaa rek comme on a l'habitude de faire jàpp nañ ni lu ñu wax waxaat lay doon moom nongoloo ndax yàggul torop ci àddina waaye dundam gi amoon amoon na njëriñ mm-hmm. ñuy wey rek di ko ñaanalaat suufu Tuuba woyof ci uh, kawam di wéy également di ko ñaanal li nga xam ne moom la fi bàyyi borom bi teg fi loxo uh, mu mel ni nag Mamadou bokk nag ci moom ñi nga xamante ne fierté banlieue la ñu woon moom mm-hmm. Ndongo Lo waaw bokkoon na ci ñi nga xamante ne saa bu daanaka li mu njëkk way sax pikin la mm-hmm. Pikine laa juddoo Pikine laa yaroo <coughs> mu nekk nit koo xamante ne nii bon fi toll nii doy na waar daal metti na trop nit la woon koo xamante ne ku baax la ndax nongo man am naa chance su seetaan ko ci bi may nekk xale muy way ay simb mm-hmm. moom ak Ivnia te bu ñu fàttalikoo Ivnia moo doon way nongo di aw waaye yëg ngeen ni trois heures la nongo doon ñëw ci simb si te micro bi di way bu wayee rek nga yuuxu mm-hmm. am na ay way yu bari yoo xamante ne ni maa ngi ko doon dégg ci jamono yu nongoloo jamono yo mu doon way simb ba tey déggaat déggaatuma ko ay sàmba ndambaan mm. ay way yoo xamante ne ni way yu neex la mi ngi ko doon way gaynde gu mag googu nga xam moom la ñuy wax Pape Ngom di mag ci Eumeu Sène mu nekkoon bis boo xamante ne bis bi mu ñaaxee baxanam nekkoon na bis boo xam kenn dootu ko fàtte ci Sénégal ndax Sénégal ñëpp ñoo amoon na xar metti na waaye yàlla ko yàlla sunu borom xare àjjana donte am nañ ci xel mu dal Sénégal yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom xare ko ci àjjana yi firdaws yi d'accord mi ngoog euh, waaw man quelques souvenirs. oui j'ai j'ai des souvenirs si si Nongolo ah. man bokk naa si ñi nga xamante ni par contre bi mu décédé lañ koy door a commencé déglu dëggantaan ko mm-hmm. euh, dem euh, en deux mille. Euh, 2001 ou 2002. Hmm. am na clip bu mu génne woon ak Moussa Traoré. Ah. am na tam beneen clip bu mu génne ak muy way petit frère am et tout ça naan ko rakk waruñu xuloo yu demee noonu euh, chanson yooyu dañ ma marqué woon mais bi mu desee de laay door a jël sama temps nag di déglu album mi et tout et comme ni Sénégalais yëpp doon defan naan waaw xoolal si pochette bu album bi sax ginnaaw la wane da doon tàggoo affaire demee bon c'était très émouvant et puis nga gis peuple ñëpp naqar bi deuil national la woon quoi mhm. naxar bi ñëpp amoon Touba de màggal rek lay bëree nit noonu ni ni dese euh, dese moodum dese saa nongoloo bëri woon bëri woon <laughs> may jéggalu émotion bi la voilà clip bi laa doon wax donc euh, voilà quoi yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana du ko fàtte mukk euh, bu ñu koy déglu chanson yi c'est toujours d'actualité day mel ni li xew tey jamonoy tey lay wax donc vraiment daal dundam bi amoon nañ njëriñ pour ñun. Mhm. donc Khadija. li ñëw du Mbaye wax rek ak Momo Seck mooy ni Ndongo Lo nekkoon na koo xam ne patriotisme en fait ma li tax ma xam ko mooy maa ngi dëkkoon Pikine ah te moom dafa nekkoon doomu Pikine pare fonk Pikine fu mu nekk dafay revendiquer ni man Pikine laa ne dafa yaakaar naa nit ñi ba léegi ñu koy jooy donc lu wax dëgg neex yàlla fi nga xam ne fa mu la jóge c'est un national comme laa ji Momo Seck donc ñu ngi ñaanal suuf woyof ci kawam waaw comme ni ko gars yi waxee rek ah di ko seet di ko nongolo man nongolo bu mu décédé laay doog a xam ne artiste mu doon parce que bu mu décédé ba pare si la gars yi dañ si la doog mu wax ma dafa décédé ba pare dafa bàyyi album ba pare décédé mhm. album bi sax consommé ko moom man après bu mu décédé ba pare si laa doon teg en boucle mu woon teg muy jeex di ko teg muy jeex si laa doon xam ne kii c'est vraiment Sénégal ñàkk non vraiment un grand grand grand artiste mais bon duñu def dara duñu nga xamante ne comme ni gars yi def rek di ko ñaanal fu mu fu mu jógee xam nga gënal ko fi nga xam fi mu jëm gënal ko fi nga xamante ne la jógee. mi ngi ñuy wéy di ko may ma rek moo wax ni leçon la affaire Ndongo Lo leçon la quoi comme li ñu dal man ak Bab dañu bàyyi ba mu dese ñu koy door a déglu donc suñu artistes yi nañ leen gën a bàyyi xel nañ leen gën a may gëdd nañ leen gën a déglu bàyyi leen xel si lu ñuy wax parce que am nañ amal nañu njëriñ vraiment loo bàyyi ba nit ki après voilà ñoom également nañu fiy faral di ñu bàyyi lu nga xamante ni euh, bu ñu génnee àddina mu mun a doon chef d'œuvre ñuy wéy di ko di ko jëriñoo parce que bëri na ci ñu nga xamante ne bu ñu génnee àddina kenn du leen fàtte ndax seen mm-hmm. liggéey bi ñu liggéey ci kaw suuf mm-hmm. moo leen di fi bàyyi waaye am na ñoo xamante ne même ci seen vivant nit ñi duñu leen fàttaliku mm-hmm. donc génnee àddina du mat a wax euh, yàlla na suuf fooyof ci kawam moom Ndongo Lo ñu wéy di ko jaale njabootam jaale ko jaratu Marème Fall wéy di ko jaale képp kuy jege ñaaleem ji li ñoo ñambe ñu ngi wéy di leen jaale euh, ki nga xamante ne jàpp ngeen ni du woon seen xarit waaye seen euh, frère la yàlla na suufu Touba woyof ci kawam Khadija xanaa nag bi bu ma ñëwaatee di dem waaw bi sax nag moom bu yëfi yembu sax man dama damay dem. vraiment vraiment vraiment vraiment damay dem Gabon. Gabon yow mi voilà Diop yow de bu ci yàlla àndee Gabon googee doo ca dem yow. ah mais mi ngi mel ni maa nga fa. kàndee nga fa. HBK yi dina fa dem. tey suba donc voilà. mi ngi mel ni maa ngi fa bu ñu demee yónnee ñu éléments yi ñu bu ñu demee yónnee ñu éléments yi ñu ñu décortiquer donc comme ni ma ko waxee woon sànq. numéro 5 équipe nationale la ñuy waxtaanee moom Idrissa Gana Gueye mi ngi il est âgé de 27 ans. mi ngi judd le 26 septembre 1989 fii la ci Dakar nekkoon ancien élève école de foot Diambar di jouer au poste de milieu de terrain donc moom parcours junior am la ñuy tàmbalee de 2003 à 2007 moom kooku ngi évolué foofu la ci institut Diambar mi nga xam ne moo ko formé diggante 2007 ak 2010 nag mi ngi évolué foofu ñu naan Lille. Mhm. parcours senior am Idrissa Gana Gueye 2000 diggante 2010 ak 2015 ba tey mi ngi woon foofu la ci club boobu de di Lille. jóge fa diggante 2015 mi ngi woon Aston Villa 2015 2016 Aston Villa diggante 2016 jamono ji ñuy wax sax nag mi ngi foofule ci Everton voilà comme ni ñu koy gisee ci image yi moom nag club boobu lee di Everton Idrissa Gana Gueye leur a coûté lu tolloog 5 milliards 3 de francs CFA foofu la di Everton ñoom ñu jàpp ne c'est le meilleur milieu de terrain de la Premier League anglaise moom de di Idrissa Gana Gueye en sélection nationale nag il a été sélectionné mën naa ko waxee en octobre 2011 par Amara Traoré voilà de juillet 2012 ñoom nekkoon na ci joueurs yi nga xam ne sélectionné woon nañ leen pour ñu dem disputer wala jongante ci Jeux olympiques yooyu lay foofule ca euh, Londres donc euh, par rapport ak euh, li nga xam ne mooy ay. ay wax wala boog ay témoignages yu nit ñi def ci moom kooku la di sa Gana Gueye nee nañ mën nañ jàpp ni c'est un des meilleurs joueurs wala un des meilleurs milieux de terrain foofule ca ca voilà ca Everton moom la Idrissa Gana Gueye mais par ak Euh, moom ni mu defee boppam ni mu defee témoignage ci boppam mooy nee na dafa jàppee boppam comme un perfectionniste maanaam moom du il est jamais satisfait de son jeu moom war na mën a jàpp ne il peut toujours mieux faire donc loolu nekk na loo xam ne atout la ci ci kookale di Idrissa Gana Gueye numéro 5 équipe nationale euh, jàpp nañ ni Thioro Mbaye Ndiaye démb dama koy dégg mu naan Idrissa Gana dafa nekk koo xam ne dafa am personnalité ci li nga xam ne même dans son jeu moom Idrissa Gana Gueye dafa bon xaaral ma bàyyi experts yi laaj leen <laughs> démb bu doon bu ñu doon euh, jàngat jeu wu Idrissa Gana Gueye nan la koy jàng est-ce qu'il était vraiment présent est-ce que c'était son jour hier. waaw ah, bien sûr. waaw mhm. ah, surtout premier mi bi def na un bon match. Mhm. football na match bu am solo waaye xam nga rek football moom moo li naan amul logique. Mhm. da nekk ci match ba mu yàgg. y de des jours avec et des jours sans. waaw te wax dëgg yàlla bu ñu xoolee dans l'ensemble ce qu'il a fait. ak ñi moroomam yëpp ils mhm. ont fait un bon match rawatina moom récupéré na ay bal mhm. donte perte na benn bal boo xamante ne ni ça fay ñu coûté cher mais yàlla moo ci moo ñu ci defal sutura xale la boo xamante ne xale bu mën a fubal dama koy ñi ñi teg bët ci ci ci kàmb yaa ngi wax naan yaa ngi mhm. wax ñëwal baabu loolu juste que am na ñoo xamante ne ñu ñu saan équipe nationale xam nga dañuy bàyyi xel Diao Baldé Keita Sadio Mané li nga xamante ne moo di a Gana Gueye Sadio ak Kouyaté dañoo si digg bi amul yeneen joueurs yoo xamante dañu koy def comme 2002 gars yi dañoo wax El Hadj Diouf Fadiga alors que mhm. Lamine Diatta Pape Malick doon def gars mhm. mais ki nga xamante ne mooy Idrissa Gana Gueye presque boo xoolee match bi yëpp bal Sénégal récupéré yëpp moom moo ko récupéré mhm. parce moo taxaw di gérer bu sa bu Kouyaté demee moom kese moo taxaw di gérer boo xoolee presque bal ñu récupéré yëpp yëpp yëpp ko à l'avance Idrissa Gana Gueye si tànk mu lay yóbbu ko ci kanam. Mhm. dem mën nañu wax ne même sax gars bu ñu defee match bu nekk en deux temps Sénégal premier mi-temps def nañu c'est mu ngi nekkoon mhm. mu ngi am mu am 46 ñooy am 54. pour cent. Mhm. kon cela veut kon xam nga gars yi deuxième bi gars yi gën a gis ne Sénégal dañu kaa dominer alors que ñoom. premier mi-temps bi Sénégal ngi am 40 pour cent tunisiens yi am 60 pour cent. Mhm. kon ça veut Sénégal def nañu si li nga xamante ne mooy seen seen warugar. mooy Idrissa Gana Gueye aussi chapeau quoi. Mhm. mais bëru xaw ma baal ma xaw ma dara nag si football franchement mais j'ai trouvé que milieu bi c'était un peu poreux quoi c'était c'était perméable. Mhm. milieu de terrain bi waaw tunisiens yi dañ ko doon romb nice. waaw ah, xam nga tamit dañ ko doon nice xaw ma nag. pourtant règle football yeeg ni gars yi war a def mais. milieu bi moom dafa yombal ku nekk ku nekk ni nga jàngatee ni bi quoi. léegi moom damay bañ mu dugal ñu ci sport. Mhm. Euh, euh, waaw bu dugal laaj yooyu léegi nañu bàyyi Khadija mu terminer ak la portrait. sànq Modou Mbaye am na am na lu mu doon lu mu doon souligner nga. waaw lu am solo mooy li nga doon wax naan bokk na ci milieu récupérateur yi man déedéet il bokk ci moom il est le meilleur milieu récupérateur en mhm. Angleterre ci saison bi ñu génn mhm. daaw te ay ndaanaan la topp ci ginnaawam N'Golo Kanté mm-hmm. bu France mm-hmm. ci ginnaawam la topp Idrissa Gana Gueye di doomu Sénégal nekk le meilleur récupérateur mm-hmm. en en Angleterre kon loolu day wane ba tey xarañteem ñi nga xamante ñu ngi wax ci football te baabu bu ñuy bu ñuy fàttaliku xam nga Sénégal boo fi nekkee numéro 10 boo demee Allemagne boo moytul latéral ngay football wala ah, milieu récupérateur Idrissa Gana Gueye bi mu fi nekk presque numéro 10 la woon di football football bu doy waar ci jàmbaar Cheikhou Kouyaté ñu koy wax mhm. Yedel moom it bi mu fi nekk numéro 10 la woon mhm. di football bu doy ci ci ci bi mu nekkoon loolu yëpp li wane xarañte gi nga xamante mi ngi ci xale yàlla na leen yàlla defal jàmm voilà loolu la ñuy ñaan na leen yàlla lafal cat moom Idrissa Gana Gueye lañ leen doon jéem a xamaleel ak ñi nga xam ne ñooy euh, sénégalais yi donte sax démb gis nañ un avant-goût même bu bàyyiwul woon xel ci moom démb gis nañ un avant-goût de ce qu'il est capable de faire ñu jàpp ñu leen di rek yàlla lafal leen cat te match bi di ñëw bu jeudi bi contre Zimbabwe doon mm. ñu jëlee ci ndam incha allah comme ni ñuy def waa Tunisie rek. incha allah mi ngi noonu xale la. Mm-hmm. Euh, taayam atu la également je pense. Mm-hmm. ci moom en tant que milieu récupérateur. Mm-hmm. xam nga man a Idrissa Gana Gueye du ma faral di wax ci moom parce que c' est quelqu' que dama ko dama ko c' est quelqu' un que j'aime bien. dafa ma lay laaj rek zem zem qu'est-ce que ça veut dire zem sañ na lu ko raw j'adore son jeu euh, j'adore son professionnalisme mm-hmm. machallah j'adore sa personnalité bi nga xamante ni moom la am ci jeu bi prestance bi mu am ci li nga xamante ni moom lay def yow moom du la topp ci dara. man ngay jiñ ay nopp Idrissa ah, sama nambaanu gaynde mer na nongolo moo doon way ngi noonu. Eh, yàlla na leen yàlla lafal cat ñoom gaynde yu eh, Sénégal eh, ku ci nekk yëpp ci équipe bi Khadija wax na leen ko dina ñëw ak ñëpp incha allah. ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo dem ci euh, tanière bi euh, euh, mais Mamadou Ismaïla Sarr ndaanaan la. la ilaha illa yàlla na ko yàlla dafal ca xale la eh, eh, eh, <laughs> on a des jeunes on a des jeunes tegal sa <laughs> on a des jeunes 19 ans bi ne la tegal sa loxo mi ngoog dañuy dem xooli je pense que la transition est tout trouvée pour dem xooli ki nga xamante ne moom moo di Babou Ndour li mu andi nag moom tey jarul sax wax kuy xalam di ca jaayu Coupe d'Afrique des Nations la ñu nekk Gabon 2017 euh, Sénégal démb daal di dóor euh, Tunisie euh, ñaari bal ci dara mu mel ni nag ba tey ñi ko yéenekaay yu bari xëyee wax satisfaction am na ci li nga xamante ne moom moo di victoire bi waaye du torop nag ci jeu bi ñu xool ba xam baa bu nduur même avis boobu noonu lay partagé notre expert maison. waaw démb match bi ci Roda match bi daal neexoon trop. Mhm. mais li gars yi li li yi doon xaar. maanaam victoire. am nañu mën nañu wax ne euh, sénégalais yi efficacité la ñu wane démb. parce que si premier mi-temps dañu am ñaari occasion def ko ci kër gi ñëw taxawaat ñu bàyyi Tunisie yëpp bàyyi Tunisiens yi gars yi ñëw football ñëw di football bàyyi leen bal bi di football gars yi seen taxaw dañu joué ay contre. demal mën nañu wax ne sénégalais yi def nañ li nga xamante moo di l'essentiel bi maanaam gagné bi mais aussi tamit am na loo xamante ne gars nañ ko décrié nañ Sénégalais bu ñu amoon efficacité tuuti tuuti bu ñu amoon tuuti tey si biir surface de bi gars yi waroon marqué ay ay ay bal yu bëree bëree bëri parce que xool premier mi yi am nañ quatre occasions yoo xamante ne quatre occasions franches yoo xamante ne mënoon ko dugal gars yi dañ ko dañ comme ni journaux yëpp fale ki nga xamante moo di Abdoulaye Diallo ko gardien mënuñu wax bu foo nekk loolu démb bien sûr lambaay dina xaw ñaaw xaw ñaaw trop di si bi ñu deuxième mi-temps bi yaakaaroon tamit gars yi tamit Sénégalais dinañ gën a nañ teggi seen tànk xaw bàyyi bàyyi tunisien ak bal bi gars yi di football euh, juste que mën nañu wax ne tamit en li gars yi doon décrire tamit avant gars yi di dem maanaam produit mooy jeu bi xaw na des <coughs> malgré gay nañ gay nañ gars yi bi am na mais jeu bi xaw na des xaw c'est à c'est à c'est à revoir daal maanaam mm-hmm. léegi man Malou Mbaye dama laaj yow est-ce que yooyu li nga doon xaar si mooy si onze joueurs yi est-ce que da nga am surprise ci surprise de yaa doon xaar Pape Alioune Ndiaye pan waaw pan xaaruma ko am naa surprise ci ci parce que xaaruma woon pan maa ngi doon xaar ñu indi Pape Coly pour man mooy départ. mais bi ma gisee pan man seetaanuma ko lu bari ci championnat am mais démb non démb il m'a surpris. waaw il a suñ beaucoup de gens. quand woon jàll l'homme du match Pape Alioune la ñu war a nommer match ndax presque boo xoolee tiir yi ëpp. li Sénégal am Pape Alioune moo ko dóor. ci kaw même bu cadré rek bu cadré wax dëgg yàlla de moom. Pan la a la il a un bon match. à part loolu li des xanaa côté gauche bi wala non côté droit laa doon xaar Saliou Ciss. Saliou Ciss côté gauche laa doon xaar Saliou Ciss pour man dina ñëw. mais ñu indi Cheikh Mbengue Cheikh Mbengue aussi. a fait son match. Mhm. wax dëgg yàlla dans l' ensemble l' équipe a joué mais man dama la bëggoon laaj benn question man mhm. deux défenseurs centraux Aliou Cissé yóbbu ko wóor man par contre baal ma balaa ngay tontu mam biram comme yaa ngi woon ci logique wu classement wu démb bi man mhm. par contre maam Biram laay yaakaarul woon ni dina ñëw wala dina départ euh, je m'attendais plus à ce que ñu andi Moussa Sow euh, dans un premier temps également je me suis dit Moussa Sow il est souvent mieux en deuxième mi est-ce que du deuxième mi bi la ñuy xaar euh, après bi ñu dugalee dugalaat je me suis dit est-ce que duñ ko économiser parce que dañ koy soxla ci yeneen match pour mën na ñëw ak beaucoup plus de fraîcheur mais ba tey awma ay tontu yu leer ci li nga xam sama bopp quoi Euh, euh, dara leeraguma ci maa ngi naan lii la xëj na lii la xëj na lee la. boo doon jàngat lan la mais boo gisee euh, nga xamante ne moo di Mame Birame Diouf xeexkat la. Mhm. imagine toi day am na benn instant ju mooy mooy mooy attaquant de pointe. Mhm. ñëw ba surface de bu Sénégal. Mhm. lépp pour xeex pour jël bal bi. Mame Birame Diouf moo moo gën a moo ëpp abattage. moom moo gën a moo moo day dem duel yi. ak mbëkkante yeex moo xam ba stockcity day day dem day jeu latéral moo gën a mën a sonal défense alors que yéen attaquant de pointe boo xam ne day toog di xaar bal pare mhm. loolu système bi Aliou Cissé def la peut-être kële moo gën a efficace mooy euh, euh, Moussa Sow mais kii moo gën a moo gën a di xeex parce que mhm. ñee tunisien boo xoolee Abdou Nour ak beneen gars ñoom ay ponkal lañ mhm. Moussa Sow bu fa nekkoon dinañ koy bu ñu dalee si koom benoom ñaari koom après day mën day day doole day jeex moo tax saa bàyyi fa peut-être mënoon na génne deuxième mi-temps mais xam ne ne instant bi sénégalais yi ñoo mën a deux heures nañ bàyyi Moussa kii nii. Euh, man euh, nekk mm. moo moom moo gën a mën di xeex euh, kii nii Moussa Sow moo tax saa yi bàyyi ko si terrain bi mm. léegi Modou Mbaye li nga expliqué sànq mooy deux deux yi c'est vrai ñu ngi yóbbu Kalidou Koulibaly ak ki nga xamante ne moo di Kara peut-être Zarko Zarko xam nga Zarko xam nga Zarko Zarko moom Lorient lii lay football lii football peut-être en mais équipe fii nii Aliou Cissé moo gën a utilisé comme latéral léegi peut-être gars yi mu ñëwee fa ba am ay li nga xamante ne moo di ay gàllankoor moom mooy mën a suppléer li nga xamante ne moo di moo di axe bi wala match match suñu dernier euh, contre kii nii contre waa kii da moo ñëw Zarko moo ñëw ak Salou Ciss bàyyi Kara Mbodj ak ki kii après kii Kara génn mhm. mu ñëw football ak ki nga xamante ne moo di Kalidou mhm. kon Zarko daal mën nañu jàpp ne moom bu bu fee xaw ba fee xawee loof tuuti gars bu ñu loof Zarko mën na ñëw yi nga xamante ne moo di moo di ak centre bi mhm. mhm. ci côté milieu terrain bi lu moom Seck doon wax léegi ne la mhm. il a senti que c'était perméable yow loo ci wax et pourtant man gisuma loolu de parce que gis nañ Sénégal mu ngi fubalee trois milieu terrain Tunisie tamit trois milieu terrain parce que deuxième mi-temps bi la gars yi renforcer militaire parce que instant yi gars yi ñàkkoon nañu li nga xamante moo di moo di bal ba dafa xatoon. Mm-hmm. Sénégal dañoo taxaw def ab ligne def ñaari ligne Sénégal mais pourtant man lu fekk xaw football moo tax quoi mais man li ma gis mooy milieu bi bal bi da romb trop trop trop c'était trop facile pour nous pour mu pour pour li nga aussi mu duggee mhm. tax ngay gisee ne gars yi milieu terrain bi c'était compact après kii mhm. euh, sax Cheikhou Cheikhou dafa ñëw taxawaay après deuxième mi bi dematul benn yoon dafa ñëw taxaw topp di xaar pour suppléer jàppale nga xamante ne mooy Idrissa Gana bi man quand même euh, Babou c'est comme si j'ai un peu. Euh, dama xaw a am même avis que Momo. man je dirais pas yaraax mais dama jàpp ne dafa amul woon link entre attaque bi ak milieu bi je peux me tromper mais c'est quand même euh, sama gis-gis la woon man à un moment donné c'était pas vraiment ci courant match bépp mais à un moment donné. Mhm. leneen lu nga xamante ni également man dama ko dama dama dama dama ko gisoon ci match bi mooy à place Cheikh Ndoye dafa dessiné wu woon ci li nga xamante ni moom moo di euh, moom moo di euh, moom moo di match bi voilà donc mu mu mel ni quelque fois ay choix wu entraîneur la c'est vrai munuñu ci dem torop mais euh, quelque part aussi doo comprendre da nga naan lu tax diw ñëwul lu tax diw ñëwul est-ce que partagé nga avis boobu que Cheikh Ndoye il avait quand même sa place ci match démb bi ku nekk 23 23 lions yëpp ku nekk. am nga ci place ku nekk mën a dugg bokk si 11 titulaires yi. Mhm. mais ki nga xamante ne moo di Cheikh Ndoye. la bi nga xamante ne Aliou Cissé mu la bi pour man technique tactique technico tactical boobu ki nga xamante ne moo di Aliou Cissé. ñaar ñi dugal Karamboch mhm. ci corner euh, Sadio Mané ci euh, euh, penalty mhm. est-ce que issue boobu mënoon nañu ko mënoon nañu ko xaar ci match bi c'est-à-dire man jàppoon naa ni xëy na bu ñuy dugal lu ñuy fight la lay doon jëlee fële ñëw mais euh, ñaari but yëpp ci balle arrêtée la. mais balle arrêtée bi dafa nekk aussi tam suñuy fort. Mhm. balle xool daaw xool euh, mhm. Karambooj ñaata bal ñaata corner la marqué ñaata ñaata balle la gars yi marqué sénégalais yi. Mhm. dafa dafa parce que ay ay ay grande ay njool muy milieu bi muy défense bi. am na ñaar ñu njool fa nekk milieu de terrain bi Kouyaté ba si attaque bi tamit gars yi dañoo mën bal bal bal euh, bal loolu dafa nekk suñu forme moo tax gars yi parfois bu ñu ko utilisé xoolal karamboj gars yi dañu koy ñëw jële à deux parce que xam nañ ne moom mooy moom mooy euh, ki nga xamante ne moo daax mbëkk ci équipe bi. ñu ngi koy ñëw di ko Babou damaa dem bay sol maillot karamboj bi tey. ma ne damay bàyyi noonu cat laa. da nga ko war a indaale. non ngi <laughs> dem ko mais léegi xam def na li nga xamante ne moo di de presse. Mhm. wax ci match bi nu mu demee ak li nga xamante ne mooy match bi ñu jëm muy contre. Euh, Zimbabwe jeudi. léegi ñu bàyyi li nga xamante ne Aliou Cissé wax na ko après ñoo xool après ci yi mën ci. ñu jox ñu bokk d' jox ñu. peu le, le Zimbabwe. Depuis, depuis un bon bout de temps, j'essaie dans mon pays à, euh, à expliquer qu'il n'y a plus de petites équipes. Donc euh, aujourd'hui, euh, le Zimbabwe, entre guillemets, entre parenthèses, tout le monde dit que c'est le petit poussé de notre, de notre poule. Mais vous avez vu, ils ont donné du, du fil à retordre aux, aux Algériens. Donc euh, je pense que c'est un match qu'on va préparer de la même façon qu'on a eu à préparer la Tunisie. Euh, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Je peux vous garantir que c'est une très belle équipe, c'est cohérent, et c'est solide. C'est des garçons qui évoluent depuis un bon bout de temps ensemble aussi. Euh, nous nous attendons à un match difficile, tout simplement. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous aussi, de notre côté, en gagnant ce, ce premier match qui était, qui était important. Voilà. On est bien rentré dans la, dans la compétition, c'est important pour la confiance. Les garçons vont se reposer, demain, après-demain, et on, puis on visionnera encore euh, les cassettes et on préparera euh, ce match contre la, le Zimbabwe dans de, dans ko nee nañu ne match bi gars yi sénégalais lu mu la ko Modou may waxee li ma doon xaar si défense bi gisu ko. Mm-hmm. mais sénégalais dañoo am dañoo premier mi dañoo football xaw a tuuti am ñaari ñaari ñaari ton ni ñu ko mën a waxee quoi mm-hmm. dañoo football bi xaw a lii deuxième mi ñoo teggi seen tànk bàyyi tunisien yi football. wax na tamit li nga xamante ne moo di match bi ñu jëm contre Zimbabwe nee na jamono ji Afrique 16 équipes yi fa nekk fële ca Gabon amatul équipe bu ndaw équipe bu nekk te exemple baa ngi nii exemple bi gars yi gars yëpp dañoo xam ne Algérie bu jàppee Zimbabwe mhm. dina ko dóor dóor yu métti xool mu mujjee la Tunisien marqué li nga xamante ne moo di seen but égalisation bu Algérien yi Algérien plutôt lañu marqué seen but bi nga xamante ne moo di égalisé yaakaaruñu ko woon kaal Sénégalais daal li ñu def euh, mi-temps bi après à de la quinzième minute ba jëm ci nga xamante ne moo di trentième mm. minute bi partie boobu ni ñu fubalee deuxième mi bi war nañ ko mën a ba tournoi bi jeex suñu bëggee satisfaire li nga moo di population mais loolu tamit a tuuti rek dañuy mel ni ku bàyyeeku loo xam ne day tiital ñu ba dañ naan bon dinañ marqué bi mais duñ ñu rassuré à 100 pour cent ah a dañu a suur a suur quoi maa ngi dégg seen benn joueur tam bu tudd Moussona Zimbabwe il paraît que aay na trop. Moussa li may dégg turam bëri na. am na d'accord Khadija peut-être une dernière préoccupation am naa beneen préoccupation mooy démb sànq yaa ngi koy wax ni presse bi relaté nañ ko démb Diao Baldé Keita ba ñu ko génn man principalement man dama tiitoon dama ne est-ce que c'était un bon choix technique wala stratégique pour ñu génnee Diao Baldé Keita mais ñu xëytee dégg ne ba ñu ko génnee également il était de mauvaise humeur dafa meeroon. et pourtant muy génn nag feeñu si kanam mu génn mu ngi sëgg nii rek. peut-être après bi ñu demee si vestiaire wala gars yi ñu koy def xam boo meree nii bu la gars yi jéem a journaliste bi ñu approché pour jéem a def interview ba doo am benn manière booy booy waxee rek wala nooy lii rek da ngay gars yi dañu xam ne yow instant bi ñu la génne da nga xawoon mer mhm. et pourtant nag moom mais quand même est que mais entraîneur bi loolu xër bi la moo tax mu mu dawalee noonu mais xëy na peut être dina si jàng mhm. bu gars yi bu gars yi relaté nii mhm. wax ne Diao Baldé Keita ñëw na mer na peut être prochaine fois li ñu def ci suñu dix dernières minutes yi bis bu ñu koy def ñoo mën Afrique dañuy def conservation de ballon. Mhm. Mhm. dañuy téye bal bi. Mhm. paasante jour yi ku nekk di maye. di maye soutien ñu lay jox. match bi gën a métti ci Coupe d'Afrique bi mooy Sénégal Zimbabwe nañ ko préparé. Zimbabwe ñu ngi am na 2008 moo ñëwoon. dafa dawoon dawoon bañu fa et pourtant tontu na ci de. léegi maa may ma une minute rek ñu dugal élément boobu bu ñu ñëwee ñu tëj. bot waaw bu dimbali ma may ma une minute élément boobu euh, bu ko defee ñu dellu siwaat difficile. On, euh, au Sénégal, dans cette période, c'était pas la même motivation. Peut-être cette génération, elle est plus motivée, je dirais, elle est plus présente, elle est plus dans l'esprit. Et je pense que la tâche, euh, bien sûr, pour Alieu n'est pas facile parce que, vous savez, c'est toujours dur. Mais quand même, quand on a les joueurs avec l'état d'esprit de vaincre, comme euh, qu'il a cité à l'instant, c'est-à-dire qu'il joue là pour gagner, pour gagner. C'était pas le cas à l'époque où j'étais entraîneur, sélectionneur à l'époque. Certains joueurs, peut-être, ils avaient, ils avaient trop vécu, ils ont, ils ont pas eu peut-être la force à, à s'exprimer, je dirais, de leur qualité qu'ils ont passée avant, la Coupe du Monde, etc., etc. Donc ça a été une période difficile, mais je garde un super souvenir des passés. Et quand je ne vis pas avec les passés trop, parce qu'aujourd'hui, on est dans une compétition différente, c'est-à-dire c'est toujours la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais eh, bien sûr, on ne vit pas dans la même... donc euh, ah, Babou Ndour moom de nee na nee na yi dañoo amoon dañoo amoon trop d' moo tax xam nga yi presque ñu football 2008. Mm. ñoom ñoo fi nekkoon 2002 2004. 2006 2008 ñeneen bi ñu nee 2008 affaire bi daf leen amatuñu motivation bi nga xamante moo leen war moo mu gisee loolu mu <laughs> ngi nii daje ngi yooleeku euh, mi ngi yooleeku mi ngi ngi Babou lundi prochain incha allah en attendant ba tey ñu ngi ci euh, tanière bi ñun. Mhm. Euh, ñu ngi ci kaan bi ak lion yi te duñu ko bàyyi. d' accord mi ngoog on te retrouve lundi euh, beaucoup de bonnes choses avec la 2STV ci li nga xamante ne moom moo di kaan bi Babou Ndour ak toute la rédaction Papa Alé Niang ak ñëpp ñu liggéeyal ñu ngi ci ngir dunduloo leen kaan bi ci anam bi gën ndax xam ngeen ne nag événement suñu yëf la. mi ngoog ñu daal di xool li nga xamante ne moom moo di reportage yu bi tey Xaadim Mbay ñëw ak ñun ak gëstu bu am solo li mu andi rek bokk na ci wàllu ko chantage ak arnaque ci li nga xamante ni moom moo di réseaux sociaux yi ñan ñoo ci euh, victimes yi ak spécialistes yi lan lañ ci xalaat moom mooy reportage bés bi ñu àndi ci ak Khadim Mbaye on se retrouve juste après le temps de recevoir Papa Léon jaadi bokk ci ñi nga xam ni saa leen fekk rek ñi ngi ak seen téléphone di manipuler ñi ngi fépp ci réseaux sociaux yépp maa ngi Facebook maa ngi WhatsApp ak Viber. boo koy seet boo demee ci internet di nga ko fa gis jaadi amul beneen yitte li du ni mel. waaw des fois ngay connecté wu benn quelques minutes ni di yàq sa jàng. non non non ah mosul yàq sama jàng de ba léegi. bu bëggee gis ñi ñu mel ni jaat yi jëlul ngay sonn. internet bari tamit ñoo xam ni dañ ciy loru te mu takku. dama mos a connecté wu si benn sama benn portable copine léegi après par la suite man connecté kii wu ma déconnecté wu ma léegi après nag ma xam ne ni ma ma connecté si sama beneen port beneen euh, kii portable léegi ma xam ne ni que dañoo dugal yeneen photo ba pare en plus dañoo dañoo mujj euh, changer mot de passe léegi amatuma accès sama Facebook. pirater compte jàmbur waaye te itam naxaate. am nañu bari ku ma bëgg a arnaquer ci Facebook tamit di ma wax ay dafa dafa am ko lu mu indi si beneen pays euh, mu indi ñaari numéro mooy numéro directeur bi pour ma mun a woo ko ma am renseignement. ah. jaaykat bi muus toog lu yàgg doog a tontu li nga xam ni mooy message bi ñu ko envoyé loolu moo ko ci génnee waaye am na yeneen yoo xam ne warees na ko mën a def ngir mucc jëfkatu ñaaw yi. yaakaar naa xel mu sell rek ngay xoolee maanaam ci sax xel ngay demee xam ne di compte fictif wala du compte fictif ndaxte nit ki dèjà bala nga ko accepté ci Facebook war nga xam ba xam xam nga ko wala xamoo ko soo ko xamul xoolal ba xam kii euh, euh, relation yi ngeen war a am ba war naa tax. nga accepté wala doo ko accepté nga dugg ci ay photo xool ba xam am na cohérence parce que man par exemple doo ñëw nga ne ma euh, yaa ngi euh, ci sa compte nga bind ne sénégalais nga ba pare ci sa biir compte maa ngi gis xam naa ne yow mii say photo du ay photo ku nekk sénégalais. arnaque piratage ak te itam fayantoo nekk ak nit ba mu neex la ngay publier ay photom euh, phénomène bi yàgg na avant sax internet mooy maanaam nit ki. ngeen doon am loo leen doon sékk sékkatoo leen ko nga ñëw bëgg koo vilipender ci nit ñi di génne ay euh, ay nataal yoo xam ne maanaam euh, yéen ci ñaar yéen ñaar rek la waroon a yam loolu yàgg na waaye ak internet dañoo gis ne dafa am benn buum maanaam dafa gën a gaaw ndaxte da nga koy def léegi nit ñi jël ko partagé ko partagé ko ba jot ci. du mel ay loi am Sénégal di ko tere di ko xeex li ñuul ci mi kay moo di enquête yi ngir nga mën a xam kan moo ko def nekk loo xam ne dafa jafe te itam photo bi soo ko publier wala vidéo bi donte sax dañu ko supprimer dina toog fukki at mbaalu ko ëpp doog a disparaître ci li nga xamante ni moom moo di euh, defkatu ñaawte fi nekk ci réseaux sociaux yi Mamadou mas nañ laa piraté macha allah maa ngi sant yàlla je touche du bois mosuñu ma piraté te maa ñaan yàlla yàlla muñu ma piraté ndax coro bu ñu piraté nit yu ñaaw yi ñu ciy def dem uti dem sa léeg ñu dugg sax ci nit koo respecté ne ko may ma nangam mm-hmm. Mm-hmm. te du yow mm-hmm. ay mbir la yoo xamante ne ni daan metti na chaque jour ñu wax ci réseaux sociaux yi mais gis nga corombaar réseaux sociaux yi ngi ciy wax di ci wax nguur gi ñoo ci war a jël ay dogal si ñoom ñoo moom réew mi lu leen neexul doo am ci réew mi qu'on se dise la vérité ñoom nañ ci jël ay ministre de la communication la xaw ma de l'information xaw ma ban xaw ma des nouvelles technologies comme ci mën a doon daal na jël euh, na jël ay décision réseaux sociaux yi nañ ñu ci dimbali bu jaree ñu arrêté yenn yi fii ci réew mi sax ñu def ko fi parce que dafa metti d'accord bu dul euh, piratage euh, Khadija Euh, mën na doon également chantage bu nga xamante ni nit koo xam wala ku la jege moo la koy def ngay sekk nit mu lay photo di la filmer ay photo nuyu ñu koy jël di publier également ci réseaux sociaux yi loolu moom nguur gi jël na ci dogal. jël na ci ay ndogal je pense bien comme ni ko ni nga ko waxee léegi jël na ci ay ndogal mais je pense que affaire réseaux sociaux yi ñun duñu jug ci di leen tàggat à chaque fois dañu leen di sensibiliser lu jëm ci réseaux sociaux yi ndax comme ni ñu ko waxee nul n'est à l'abri comme ni dem seetee benn expert boo xam ne jox na ay astuce yoo xam ne soo ko éviter wala ba boo ko defee di nga mucc ci yooyu les piratage mooy ni ñuy ajoutante ñu jëlee comme par exemple kaw Facebook ni ci ajoutante ami Facebook yi nañ ko xoolaat mm-hmm. parce que mënu la xaw ma la nii dadaam bien vrai que réseaux sociaux c'est pour des rencontres mais am na ay kanam yoo xam ne boo ko xoolee di nga xam ne kii il n'a pas de très bonnes intentions mm. ay compte yoo xam ne benn photo nga fay fekk wala boog photo bi nga fay fekk mooy loolu nga accepté ko loolu je li ma ci gën jaaxal mooy euh, Momo mm-hmm. ki nga xamante ne très sincèrement bu bëggee nga jot bu bëggee nga jot ko dina la jox numéro téléphone am xam nga man lu ma mënta supporter ci réseaux sociaux yi on s'excuse très sincèrement mooy am na ñoo xam ne sax mënul ñàkk mën nañ la ci woo mais am na ñoo amuñu heure xamuñu waxtu xamuñu heure liggéey xamuñu dara heure bu leen neex lañ lay woo sur messenger whatsapp c'est compliqué te parfois da ngay obligé gentil par force parce que xam nga ñun tamit <laughs> suñu cas dafa xaw dafa xaw a dafa xaw a metti parce que on est des personnages publics après da bëri ay fan et tout nii dañ lay topp donc euh, tu es obligé d'être gentil mais parfois sa dérange mmh. mais mais réellement mais je vais rebondir sur euh, sànq am na lu Khadija waxoon mu ne jamono ji Facebook kiñ ci piraté en fait yow la neex yow la neex ñu piraté la dañ lay envoyé lien nga sob cliqué ci mhm. man je ne clique sur aucun lien même sur WhatsApp tu m'envoies un lien daf may dama lay làkk wolof loolu mooy sama système mhm. boo ma envoyé messenger lien damaa la la je suis sûr que sénégalais nga donc boo ma wolof xam naa bon y a des chances que tu ne sois pas pirate après si laa lay door a poser la question mais en tout lien nii nii rek du ma ko y a des personnes soo gisee seen profil xam waaw mais je pense que yow war a xam li nga war a def rek ah. loolu ci hmm. xam nga boo nekkee tamit foog ne tu dois passer tout ton temps sur les réseaux sociaux moi j'utilise beaucoup pas euh, la page Facebook mais c'est juste pour communiquer par rapport à mes émissions par rapport à, à certaines prises de décision mais bu nekkee ne da nga bëgg a nekk ci WhatsApp Imo man par exemple j'ai enlevé Imo. man parce que ça me saturé de voir chaque jour des message mm-hmm. mais bon il faut savoir comment l'utiliser mm-hmm. et puis ki mi ngi doon wax ne euh, tout de suite euh, pour euh, dafa am am na commission de protection des données personnelles. Mm-hmm. ñooñu c'est c'est vrai que war nañ def benn travail de vulgarisation par rapport ak ñoom li war a def ñooñu am na nañu rôle nekk say données personnelles. dañ ko attaqué nga mën leen saisir ñu sévir donc je veux dire que loolu tamit il faut que xam ko. mais tamit dañoo war a jigéen ñi ñoo ci gën a exposé. Mm. voilà la vérité. xam nga li ma leen wax chaque jour ma sonn naa ko wax ci benn émission fii mën na leen da ngeen di photo wu dans n'importe bu leen fàtte ne des fois da ngeen yoreel seen doom yi àq. Mm-hmm. da ngay am doom mu tekki fii ëllëg bëgg fee nekk dara. kilifa fii ci réew mi ñu ne ko kii de yaayam moo ne ko xamoo yaayam xaaral tàppe photo boo mës dugal mi ngi ci tag bi mm-hmm. après nga yàq comme ça l'avenir des enfants. Mm-hmm. mais je pense que tamit euh, ku nekk yaa xam ne koy utiliser quoi il ne faut pas en abuser. Mm-hmm. parce que tamit outil la bu ñu utiliser ñun ñëpp pour communiquer mais il faut pas en abuser. d'accord euh, mi ngoog en attendant lu mbedd mi wax di euh, yemb ñu dem ci wàllu actualité ak Papa la ñoo wax nañ leen ko sànq dinañu waxtaanee coow la am ca PS. ba tax ñenn ci doomu parti ba caabi daal di leen féete ginnaaw ku ci mel ni maire Medina di Bamba Fall. waaye également ndax muus ba leen na màtt nekkul ci buntu euh, néegu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa parti démocratique sénégalais on en parle avec Papa Alé également. Mm-hmm. bu ci xajee sax ñu ñambaas ci gom bi. Euh, waaye en naa ñu xool yi euh, PS ak coow li nga xamante ne moom moo fa am dans un premier temps lan mooy nekk jàngat bi Papa Alé. d'abord je pense que c'est triste hein c'est triste pour le Parti socialiste parce que. ñu xam histoire dëgg Parti socialiste xam nañ ne violence Parti socialiste la fekk na fa baax yàgg na fa am du lu bees Ousmane Tanor Dieng bañ koy nommé ci congrès sans débat bés boobu. congrès sans débat sans débat dañu doon wax sans débat parce que dañu wax ne Abdou Diouf moo ko imposé. Mhm. la limite au niveau du parti socialiste. Mhm. jour congrès boobu. Mhm. nit ñi nga xam ne dañoo bëggoon Ousmane Tanor Dieng nekk secrétaire général dañoo xëy feesal lool ba teel jël ay nervis feesal lool fi nga xam ne moo di sàllu congrès ba am ku jóg ne vive Djibo temps yooyu jiboo dañoo foogoon ni. Hmm. benn kilifa gu mag du ma tudd turam dóor ko crochet. Hmm? mu wadd biir saal bi. Hmm? li may wax ni xam na kilifa googu xam na boppam. léegi dafa am position bu mu nekk moo tax bëgguma tudd turam. te nekkatul ci parti ba. mais pour vous dire que congrès xeex yàgg naa am biir parti socialiste. Abdoulaye jiite na fi cercle de jeune cadres du parti CGCAS. di xeex Pape Babacar mbay ndem si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm bu ñu joxoon mouvement national d'urgence biir parti socialiste maison du parti ñuy xeexante guddeeg bëccëg ay yat ak lu ne di fa xew mus sa yegg fii renouvellement hmm. renouvellement parti socialiste ay hmm. bakkan rot na ci nga ni ma ay bakkan rot na ci li may wax nii xam ñu xam histoire xam nañ loolu mus sa yegg fii pourquoi subitement. c'est ça la grande question. Voilà. Mmh. pourquoi subitement pour ce dossier mu am tournure bi. Mm-hmm. muy un. deuxièmement man ba ma liiree euh, li ñuy toppee ñoom Bamba Fall dama ne dafa rëy quoi. tentative d'assassinat. Mm-hmm. association de malfaiteurs. mais nag am nañu ne seen ay téléphone moo leen jaay message yi ñu yónnante moo leen jaay. parce que def nañu euh, euh, jot nañu relevé yi. Euh, am na ñu ne également réunion ba ñu tenir piscine olympique gardien bi moo leen weer ak yu mel noonu bu fekkee ni tamit loolu lépp am na ñu ne ci message yi sax am na ku naan. nañu taal wala nañu nàngam est-ce que bu dee ni loolu lépp am na. kon est-ce benn li image yi gars yi gis défendre ñu kenn mais image yu ñu gis parti socialiste xëppante ndox ak suuf lañ fa gis. waaw ñun loolu lañ gis mais police yi def enquête depuis waaw non dama ne police mais police ci ay fait lay basé wu mhm. police ma dinaa rey mhm. ak ma gis concrètement na mhm. xëppante ndox laa fa gis ak suuf ah damay wax ne nañ wax rek lan lañ gis gis nañ fa barre de fer gis nañ fa pistolet léegi te man ba ma ne mën nañ wax lu ne tentative de destruction de biens appartenant à autrui parce que propre patrimoine parti bi la wala agression sur quelqu'un est-ce que mën nga imaginer Bamba Fall dina jël pistolet téere Ousmane Tanor Dieng mu de. waxtu dëgg yanuwul maanaam. est-ce que di nga gis xale yooyu ñu ñëw jël yat ne dañuy rey euh, secrétaire général Ousmane Tanor Dieng xam nga loolu mënut nekk. Mm. xalaatuñ ko. tournure bu mu jël. mais xam nga yaa ngi dégg bala passé ñii di wax ne dinañ wax mais parce que nervi contre nervi la woon. Mm. parce que. beneen camp bi tamit préparé woon nañ seeni nit ci événement bi am biir parti socialiste et Khalifa Sall dans tout ça parce que waxoon na moom également bi affaire bi amee nii bu ñu ko bàyyi mu sedd foog ñu lijjanti lii parce que bakkal mënoon na rot moo ko waxoon moom Khalifa Sall. waaw mais euh, d' nañ. Mhm. d' accord nañ ci enquête bi ñun demal ko yëg yéggale ko ba kii mais je pense que waroon nañ ko régler au sein de leur parti. loolu laa wax. Mhm. gisuñu fii ci biir APR ay dóorante brique. Mhm. dara tuuru. teg naa image man fii sax. cogère mhm. cogère dafa yegg fii. déedéet bu yeggee fii rek. ñaaw ñot da ci mën a am ne. est-ce amul leneen luñ ci laxas la bu fi man baalu moo li ma buggoon wax mooy lu tax parti déjà parti politique yi Sénégal yi lu tax ñu tàmm nervi am nervi la deuxième chose mooy ak ñu bokk même parti. ba pare ku am ku nekk am say nerf bopp ñu war a daje ku nekk am say nerf ku nekk mais loolu nag moom laa lay wax ne la lii c'est le prolongement de la crise qui existe au sein du parti socialiste lii nekk dëgg ba nekk dëgg mooy excroissance su crise bi rek la crise bi xam nga lan la fii ngeen toog fii di fi def le matin c'est à nous mm-hmm. Ousmane Tanor Dieng toog na fi carte sur table mm-hmm. ma séq ko man ma Momar Diong mu ne 2012 mu ne ce sera ma dernière présidentielle mais j'ai pas dit que je vais quitter le parti. li may wax nii ku cette archive 2 si génne ko mais peut-être je vais rester dans le parti mais je crois que si je remporte pas la présidentielle c'est la dernière dafa am ci biir parti socialiste benn tendance boo xam ne ñoom dañoo gëm ne parti socialiste mënut a lëngoog APR rek APR di dooleel boppam. di jël seeni nit. ñoom dañoo war a xeex comme ñëpp tamit. parce que coalition bu ñu koy def it ku nekk da ngaa war a natt sa bopp. la preuve mooy ñi ci am fit génn ci élection locale taxaw ci biir parti socialiste ñoom rek a gagné. mais ñu lëngoog APR. APR dafa nangu yëpp ñaara ñetti nit ci génn Aminata Mbengue Ndiaye yóbbuwul ko Moustapha Diop Louga. bu nekkoon ànd nawle la ñuy def. mu dëggu si ñoom. dañ ah, mooy maire Louga. comme nag coalition la. ñu ñoo bokk àndandoo nañ ko dooleel foofu. dégg ñu fii Mbaye Ndiaye mu ne Khalifa Sall bu bëggee doon maire de Dakar na ñëw militer APR. APR. <laughs> dëgg nañu waxante dëgg. taxawu Dakar mu mel ni waaw. léegi Khalifa Sall ñëw jéngu. Mhm. teg liste taxaw ndakaaru gañe li nga xam ne moo di lim gañe ci Dakar. Mhm. trouver une stratégie par rapport ak système bu ñu tegoon en place. Mhm. mu nekk ci biir parti bi nag crise boo xam ne militant yu bari dañ ne. si ñoom d'ailleurs li may wax ni je parle la dernière émission que j'ai eu à faire avec Ousmane Tanor Dieng je l'ai interpellé c'était avant le référendum nee naa ko certains militants du parti socialiste disent qu'ils ne sont pas satisfaits de l'alliance avec la PR mu ne oui oui oui très, très souvent xam moom muy wax rek ah oui pas mal eh, vous avez vous avez parfaitement raison <laughs> vous, savez euh, fois aussi c'est pas juste de débaucher euh, les militants des autres partis mais bu nekkee ne dañoo ànd ànd ñu bokk ñun ñëpp coalition bi APR di dooleel boppam fu mu am sa militant roppat la kon yow mi ngi lay néewal doole mm-hmm. ay Tall Sall song mënu ko Podor Mamadou Racine Sy musta politique mm-hmm. xam na xam nañ ko ci business ak musta politique ñu indi samp ko muy politique pour néewal doole ay Tall Sall mu ñafe ba gañ a Podor mu ne de li gars fàtte te ba muy xeex loolu kenn jàppalewu ko Aïssata Tall Sall ak Aminata Mbengue Ndiaye ñooy ñaari jigéen ñi gagné rek seen localité ci élection présidentielle 2012. Hmm. pour Tanor le hmm. candidat Tanor. Hmm. seul Aminata Mbengue Ndiaye au premier tour a gagné pour le compte de Tanor seul Aïssata Tall Sall a gagné Podor pour le compte de Ousmane Tanor Dieng. tey suñ demee ba PS coow li coow coow loolu bari fa. Ousmane Tanor Dieng. dem lonkook Macky Macky Sall. Mhm. coow li duggaat PS ba xeex am ba ñuy wax waxi rayaateeg yooyu. Mm. est-ce que moom Tanor Dieng en personne def na li ko war est-ce que du dafa xaw a ragal Macky moo tax mu dem def loolu. non c'est que fin de carrière politique moo métti. Mm-hmm. mu mm-hmm. neex leen mu naqadi leen. yàlla dafay dafay abalal. Mm-hmm. <laughs> fin de carrière politique day ñëw par la force. Ousmane Tanor Dieng je ne pense pas que dina nekkaat candidat a élection présidentielle wala bu doonee tamit wax fa dëgg neex yàlla bon. perte de temps lay doon si. bon dañoo jàpp Mamadou nga baal ma rebondir ci li nga wax léegi dañoo jàpp ni Ousmane Tanor dafa sacrifier génération bi pour waaw benn retraite boo xam ne retraite bu baax lay doon mais également. pour fexe ba en fait li ci gën a làq mooy fexe ba xale yi ñoom Khalifa Sall ak consort ñu dindi seen éligibilité moo waral ñu yóbbu affaire bi. waaw mais di xamante ne kon kon na wax ne mujjee na puso bi mu réer. Mm. Mm. Tamar waaw. yaa nekk directeur de campagne mm. électorale 2000 Abdou Diouf. Ah. ñu gañe la. nga nekk candidat 2007. ñu gañe la. nga nekk candidat 2012. ñu gañe la li la war. mooy dooleel sa parti bu ëllëg ak si biir ku fa falu ne kay Tanor dinaa ko gërëm di ko sant parce que am na mérite xam nga tax ma ne Ousmane Tanor am na mérite lu ma ko mën a critiquer ci yenn at am na mérite 2000 ba 2012 métti woon na trop ci biir parti socialiste ñu bëri dem mu toog jëngu téye parti bi mm-hmm. mais dañ ko ci jàppale ba nit ñooñu di dem ñaka fa jàppale woon xam nga ñan la woon ñan la xalifa Sall mm-hmm. Abdoulaye Wilane Aminata Mbengue Ndiaye. Diaz famille. ñoom ñoo ñoom ñoo toog première gis nga bën ba ponkali di daw parti socialiste 2000 perte pouvoir bi. Mm-hmm. première conclave bi ni nga ko defee fii hôtel Savana. pour comment réorganiser le parti pour faire face et être dans un parti dans l'opposition ñu def ko ponk lépp di dem. c'est que opposition moo leen bett nag mosuñu xam opposition waaw mais ba teewul. daf leen yor sa ngor. d'accord. Souti Touré dem. Mm-hmm. Mamadou Diop dem. Robert dem. ñëpp dem ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ne dañuy des toog di xeex di kolkolaan yoruñu woon dërëm Khalifa Sall mi bu dawee dem mission extérieure dellu siwaat ñëw toog taxaw fii di xeex et puis dama ne parti booy dooleel da ngay dooleel ñi nga xam ne au moins dañuy gagné wala parce que élection ay xob la ñuy compté je crois parti booy dooleel tey jii ñii Bamba dafa gagné Médina avec la manière. nommé wuñ ko. Hmm. daf ko gagné. Khalifa Sall dafa gagné Dakar nommé wuñ ko. Barthélemy dafa gagné Mermoz nommé wuñ ko légitimité la ñu am. Hmm. d' accord on. Ousmane Tanor Dieng dañ ko nommé un an renouvelable au conseil par décret. bu xoolee bu xoolee bu xoolee euh, Macky Sall xool bu ko neexul sax. génne ko mu folli mu Tanor moom warul bàyyi parti socialiste dem toog. non mën na ko bañ a bàyyi mais xam nga lan laay wax mais nañ toog seen biir ñoom. Hmm. pense. lii seen li seen njariñ laa foog mooy toog seen biir waxtaanee seen biir waaye xool na la ñuy régler seen problème seen biir loolu laa foog d'accord ñu xool euh, fi nga xamante ne moom moo di PDS euh, parce que également mel na ni muusu euh, PS mi ngi leen di bëgg a màtt ñoom tamit ndax far ba Senghor jàpp nañ ni génn gi mu génn ak li mu wax ci Oumar Sarr dëppoowul ak yoon ba tax yóbbu woon nañ ko ci conseil de discipline waaw mais Farba moom dinaa la wax leen ku gëm Ablaye Wade mooy Farba Senghor Farba Senghor moom mën nga ko reprocher lépp man ba mu doon le militantisme c'est un militant. Mm-hmm. te ay Aïda Mbodj wax na ko nee na li ba wax. ci kaw ñu bëri ci moom moom ñun ñëpp moom la ñuy xalaat. xam nga lii dëgg ba nekk dëgg mooy leadership bu Omar Sarr. Mm-hmm. ñu bëri dañ ko reconnaître wul ci biir parti démocratique Sénégal. ndax la te pe parce que tout simplement dañuy wax ne am nañu ko gën a mën a am charisme gën ko mën a dëgg tàngul ko quoi tàngul ah. muy muy muy benn ñaareel bi PDS dañoo xamul ndax dañuy opposé wala opposé wu parce que dañoo jàpp ne am na ñu nekk ci biir PDS dañuy waxtaan bi PDS guddi ñu dem seeti palais hmm. moo tax ma ne waa parti démocratique sénégalais tamit et c'est dommage c'est là où j'ai des regrets hmm. mooy lan Wade avec tout xam nga mënoo bind histoire politique Sénégal te doo ci hmm. boole Abdoulaye Wade jox ay chapitre bari kon day nax saay nii rek mais Papa Alé day mais c'est triste la woon tamit mais Wade kese la woon mais je veux dire que ñoom ak li leen wàdd defal ñoom ñëpp tey jii ku fi jóg di yëkkati mbagg wàdd moo la jëlee teral la jox la defar la ba de toute pièce mm-hmm. tey ku fi wax nii di fëgg dënn di wax ñëpp laay wax mm-hmm. tous <laughs> du jaaj Fada mm-hmm. ba mu nekkee étudiant lañ ko def député député ñoom ñëpp ñoom lañ doon wooyee les bébés ministres ñoom Aliou Sow Aliou Sow. ñi bàyyi ñëpp waaw ba ñu nekk ba ñoom ñëpp moo tax. 35 ans je pense am benn légitimité wante benn crédibilité wadd moo la defar. de toute pièce mais ci seen biir ils pas cherché c'est-à-dire ay guerre interne xeex ma Samba xeex ma Demba góor gu ne góor nga est-ce que yenn saa yi bu duñ la ñoom duñ la buux ba sës la ci mur bi ba à boo gisatul sa bopp ci parti bi. forcément da ngay dem nekk ci leneen parce aussi benn kilifa du nangu peut-être nekk sa njaboot yow leer la dafa na parti bi mënut a nekk fii di def ay réunion rek te ñu jëm ci ay élection élection législative xanaa war nañu bi. war nañu wër base bi tàngalaat xool nan la ñuy defee renouvellement yeeg yooyu pour préparer wu. jàpp nga ni PDS existé na ba léegi bu ñu demee ci base yeeg yooyu ndax la ñu amoon amati nañ ko. tu oublies qu'aux élections législatives le PDS a été le seul parti qui a qui a eu le courage d'aller seul et qui mais oh. ñi dem de dañu kenn mënu laa wax ne lii laay pesé. ça veut moom dafa dem moom perte pouvoir de Ablaye Wade dafa ne gars yi teqalikoo leen ñun dañuy dem natt suñu bopp. Mhm. ñu dem am 12 députés. PDS moom amul fu ko Macky kan Macky amul fu mu leen jàpp ndax moo kek Karim passeport diplomate am ci prison bi lañ ko defaree mu génn ñu jëlee ko jet privé yóbbu est ce que Macky amul fu mu leen képp. ñoom it def est ce que loolu jaadu na je pense pas que prisonnier bu ñuy fekk ci biir ci biir ci biir prison defal la passeport diplomatique. Mm. prisonnier bu ñuy jëng boo prison dañ ne la buñ la jeexalee liberté ba nga génn ci bunt bi rek amatuñ waa def la dara. Mm-hmm. waaye yow ñu jël la directeur administration pénitentiaire de rëbës dawalal la yóbbu la ba kër ma Madické wóoluwun sax ne bu buñ la dana bàyyee kër Madické Madické am na oto boo xam ne mën na la yóbbu aéroport ñu ne déedéet ñu ne la yow kay yow sa tànk suñ tànk ba nga dugg ci jet privé yóbbu ba ci biir privé est moo tax moom laa la laaj ndax. Ah, képp damay wax est-ce que non. bu jaadoo rek non je veux dire que. bu Karim ñëwee fii dina leen ko leeral parce que Karim bu ñëwee fii dinañ ko wax mais Karim bu ñëwee fii boo ne leen bu ne leen man dañ maa tëj kaso 6 ans ma toog policier bu ñu fi mës a tëj kaso moo ko inventé maladie ñu yóbbu la pavillon hôpital mu ne ma toog ci biir kaso bi. si def fa trois ans benn yoon laa ma si génn ci biir kaso bi ne sama bëñ ñu dem ci dentiste bi. ñu ñëw indil ma na ma bind lettre de grâce nga nii mën a signé wu ma ñu signé ko par la force defal ma passeport diplomatique génne ma par la force jéngu ma kii dam leen ngeen laaj lu tax ñu def loolu mm-hmm. looy tontu kon moom am na mérite moom Karim Wade mi ngoog euh, euh, coowu gam bi moom xaju fi ak Yaya Jammeh dinañ ko euh, lépp ba lundi non Adama Adama non Adama Barrow ngi Dakar Adama Barrow mi ngi Dakar waa mais Yaya moom da xam la mooy tànn bu ci gënal <laughs> fi nekk ni daal Yaya affaire bi non après ñuy wax ne il ne faut pas utiliser kenn bëggul guerre kenn bëggul utilisation force kenn ñaanul yàlla. 10 secondes laa boobu laa la kenn bëggu ko. <laughs> kenn bëggu ko non honnêtement. dëgg la bëgguñu parce que Gambien yi lu ma leen di sama xarit yi dama leen koy wax chaque jour mën na leen yéen ñoo bokki sëriñ ñoo bokki waykat suñu waykat ngeen bëgg suñu sëriñ yi ngeen yaakaar. Mhm. kon daa ko ñoo bokk lépp Sénégal ak Gambie kenn bëggul utiliser force waaye nag lii dëgg ba nekk dëgg yaa jàmme dafa war a dem. d'accord a xaw ma ne bëgg naa nekk meeru Dakar te moom dafa am xaalis. Moustapha Cissé Lo moom mënoo ko gagné Touba te gagné Dakar. d'accord boobu xam nga benn xarit mu ne ma créé yi am na liggéey ba doog a wala ma ah ki tax le dafa bëri xaalis trop. dama am xaalis trop waaw créé yi duñ ko woon nag waaw foo jëlee xaalis ba nag ah man de waxuma ko Moustapha Cissé Lo man sama xarit la balaa léegi bu ñëw mu may clamé encore wante dañ le dañ le créé yi day topp gars yeeg yi directeur ki yeeg yooyu ki taxaw ne dafa am xaalis ma ne ko waaw waaw léegi nag ku nekkee ne mënoo gagné Dakar waa waa Mbacke fi nga fekk baax paas nañu la. waa Dakar la civil la xanaa nag ñoom ñu jàppale ñu waa Dakar la mi ngoog mi ngoog jaajëf euh, euh, Papa Alé on te retrouve lundi prochain incha allah d'accord merci beaucoup ñu marqué une petite pause le temps de recevoir ki nga xamante ni moom la euh, moom moo di dalal ci wàllug découverte Baye Gallo wax nañ leen ko sànq. ñëwoon na fi waaye dina fi ñëwaat ndax li mu di moo am solo on se retrouve juste après. mais Louga neexoon na waa waaw waaw waaw. <laughs> naa daa amoon pompe à gaz de. gis nga sa naa Moustapha bi ça fait l'occasion ma wane waale ko sax. ci page Facebook am nee na dafa violé li nga xam ne moom moo di protocole beeg il a pas respecté le premier ministre rek yu mel noonu mu nga APR daal APR la ñu xooli euh, page pub bi ñëwaat euh, plutôt musique. ci mbedd mën nga ci jàng nafar. ndax bëri na sëkk

barhama bay barama bay barama borom jamano barama bay baramu bay barama Euh, mi ngi noonu euh, mi ngi ci plateau bi moom borom vidéo boobu di Baye Gallo dinañ ñëw ak moom ci kanam tuuti euh, PND merci beaucoup ci jàppale bi ci li nga xamante ne Momadou lu mbedd mi wax gis nga ko Momadou xale yi dañuy sax jël seen xaalis école. Mm. dajale ko pour di ko dem jouer ji. PMI pari foot PMI pari foot. sonal na xale yi. te dañ koy xajja mi ngi koy wax léegi bi vidéo bi daw ne dañ ko interdire au moins de 18 ans. ñi koy jaay ñoo responsable mhm. parce que man lu ñu interdire au moins de 18 ans xale bu amul 18 ans ñëw di ko jënd du ma la ko jaay mhm. éducation encore une fois mi ngi waat nii xale yi seen bopp lépp kat xaalis a ci nekk mhm. man de billaahi ku ma teg kaamil ma dóor ci sama loxo mosuma jouer pari foot mosuma jouer poker xamuma ko éducation la ndax xay bu ngay juri yaraat seen doom tere leen ak nga ko a def ndax Pikine naa koo def bu baax a baax mais jéemuma ko sax nañ defaat nañ defaraat éducation li li dafa xaw a dafa xaw a naax saay dafa xaw a réer éducation nekkul parent bi kese moo la ko war a jox. non non boo génnee si mbedd mi am ki ki nga fay dajal mag bi nga fay dajal am na droit éduquer la boo demee ci école bi ki lay jàngal am na droit éduquer la donc lii comme sànq mag am na banderole boo xam ne c'est visible en très gros caractère lañ fi bind interdit au moins de 18 ans. yow mi nga xam ne yaa fay jaay je pense que sensibiliser nañ la hmm. war ngaa xam interdit au moins de 18 ans lan lay lan lay lan lay signifier donc ñu bind sa plaquette interdit au moins de 18 ans xale bi ñëw nga leer na kii il est pas majeur bu amee 12 ans wala 13 ans si lay yem ba pare nga koy jaay di nangu xaalisam donc loolu tamit bu sanction di am ñoom la ñuy sanctionné ñoom ñu koy jaay ak entreprise bi ci ci boori boppam parce que war na hmm. def ay saytu di xool ba xam li ñuy seen norme yi nit ñaa ngi koy respecté nit ñaa ngi koy euh, respecté parce que li Khadija wax sànq ah, euh, léegi moom ñu yar gi amatul euh, kenn doomu mbay Mbaye moomoo sañatu koo corriger. Mhm. Mhm. Euh, te bu njëkk loolu moo nekkoon xëj na li dëgëraloon euh, éducation ci àdduna bi. sama papa dafa ma naan ñun ba ñuy jàng boo rombee sa professeur 18h30 sa ñeme ko koo feeñu. Mhm. parce que boo xëyee dina la làpp ne la loo doon def ci mbedd mi heure bi malheureusement léegi c'est euh, ce n'est plus le cas classe moomoo gi seen doom yi. machine yi lañ neexul tamit nga nga jur sa doom ba pare ñu la koy dóoral <laughs> quoi franchement neexul si xol. mais bon c'est c'est du dóor rek mooy yar moom c'est super important c'est que sénégalais tamit pour moom euh, li si ëpp en tout cas ci pour moom yar mooy dóor. Mhm. barki dem bi may ñëw kër Modou Mbaye enfin samedi. Mhm. ak euh, ak ñaar dañu day ak benn xale muy jooy si koñ ñoom Modou Mbaye si buñu kër jooy yu métti dara ah, ma a ko la mu ne sama papa nag du ma jox fukki dara. je te raconte mhm. que rango ñi bëri na yu ma may ko fukki dërëm faale wu ma sax waxuma sax en fait dès que ma jox ko fukki dërëm il s'est retrouvé sax merci Seye euh, mi ngi mm. noonu mu mel ni éducation bi moo def euh, défaut mm. euh, merci beaucoup PN di on te retrouve yow également lundi prochain ci lu mbedd mi ñu koy jaajëfal bu baax PN jaajëfal nañ ko bu baax sama doom baay la PN di Ndiaye li muy def ci mim bu ko Macky Sall yégee dina ko décorer ordre national bi mérite ak ordre national de Lyon <laughs> merci beaucoup PN di Momo Baye galo il est mmh. sur le plateau mhm. moom également lan la ñu andil tey. ba mu sekk le soleil yëglekaay alors je lève ma main gauche pour euh, madame Guèye Olympia <laughs> xam na li may wax Baye Gallo bonjour à toi gëjoon nañ la gis enfin gëj nañ la gis euh, sénégalais gëj nañ la gis ñun bi ñu la gëjee gis yàggul parce que yàggul dara ça fait quelques mois ñëwoon nga Sénégal indi lu am solo. Mhm. Euh, jot nga def ay manifestation def nga conférence de presse on est venu te voir on a apprécié ce ce que tu as fait. Mhm. nga ñëwaat euh, indi beneen affaire. alors loolu lan la. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Mhm. puis avant ma commencé di remercier la 2STV bi. Mhm. parce que c'est sama télé de choix la. donc depuis toujours. Euh, tey du ma indi euh, benn euh, festival boo xamante ni deuxième édition bi ren la. Mhm. ñu tuddee ko Talibé Taliberté. ak <coughs> muy samay album yi nga xamante ni bon ñu ngi actu en actualité. tuddee ko Talibé Taliberté. Talibé Taliberté. donc mu nekk loo xamante ni bon anecdote bu ndaw la dama mos a ànd ak benn taximan. Mhm. di yóbbu ceeb sama benn xaritu Serigne Diarra. Mhm. alors mu ne ma en lan nga xalaat pour euh, liggéey ak xale yi donc euh, ci loolu laa demee jël seen yére yi ñuy doon sol. Mhm. liggéey si ak ñoom avec des œuvres d'art ñu jaay ko def ay concert mu nekkoon loo xamante ne nii sa marqué donc mu nekkoon l'année dernière jot ñu ko woon sax préparé. en juste trois mois la ñu defoon affaire boobu. donc nag. Euh, tey projet boobu moom indiwaat Sénégal. Mhm. au fait euh, donc même si dee am na actualité musicale mhm. mais plus que projet boobu moom indi donc loolu ñu ngi koy def du 15 au 19. Mhm. à Saly. à l'hôtel La Médina donc euh, atelier peinture lay nekk ay concert ah, ay dîner de gala pour récolter ay fonds pour euh, jéem a xool toujours nu ñu mën a def ba aider suñu doom yi donc je pense qu'on n'est pas ah. <laughs> donc on n'est pas hors sujet. Euh, yéen a ngi doon wax léegi ci yar donc je pense que donc euh, ñun ñëpp loolu dañ ci war a dox tey mm-hmm. pour xool na lañ mën a dimbalee ñi nga xamante ne ay tout tànk lañ parce que suba ñoom ñooy nekk mag te ñoom ñooy doon nga xamante ni bon ñooy yor Sénégal tout simplement waaw ñu ñu soulever aussi euh, à, à nos téléspectateurs le fait qu'on en parle c'est pas pour euh, s'ériger en donneur de leçons par rapport aux, mm-hmm. parents dañ ci waxtaan parce que ñun tamit ay parents lañ et que voilà pour suñu jàmm pour suñu avenir u dëkk la donc euh, c'est très normal ñu siy wax donc Baye Gallo pour euh, revenir à à toi mm-hmm. on a remarqué aussi sama sama sama naataangoo yi dinañ ko confirmer mhm. que la plupart du temps saa yu ñu recevoir artiste dina la ne euh, dama am projet social mhm. damay euh, def humanitaire damay mhm. def lii ak lii alors que moom ci boppam cas social xamul moo bëgg a wax donc souvent dafay dafay nekk besoin Euh, peut-être de visibilité. wala wala wala par rapport ak turam wala yu demee noonu. Euh, toi par rapport à ta carrière on sait que am na loo xam ne soxlawuloo ko. d'accord mais est-ce que tu ne serais pas en train de suivre la non parce que tout simplement lu mu ñëwee c'est aussi naturel que cela te man nekkuma Sénégal donc euh, échange la plutôt mm-hmm. il est vrai que képp ku nekk di liggéey ci social dina la apporter quelque chose mm-hmm. faut pas ñu euh, voiler se voiler la face mm-hmm. liggéey la comme bépp liggéey donc euh, oui c'est important de travailler dans le social moom moo doon gën ñu social bi dem nekk ci parce qu'on peut être artiste Euh, on a dañoo am euh, ay ouverture pour def lu nekk. waaw bu ñu tànnee social donc c'est quelque chose de bien. Mhm. donc su fekkee dina ma indil visibilité. oui tant mieux. Mhm. je suis prêt à le prendre. Ah, super mais en attendant man li nga xamante ni man moom mooy sama objectif. Mhm. mooy xool xale yi su fekkee am na benn étincelle boo xamante ne ni man par rapport ak li may def. su fekkee mën naa leen ci yokk. là man euh, c'est mon objectif. premier déjà ay étoiles ngay créer. voilà quoi. foo jëlee doole. fu may jëlee doole. donc j'ai as dama am benn association bu ñuy wax couleur musique. waaw loolu moom jiitu na. Mhm. lii yëpp. Mhm. donc association boobu euh, ci li may liggéey man souvent ci ay euh, ay école lay faral di def ay atelier pas mal ah au niveau musique comme euh, peinture. donc yooyu yëpp dafa ma dab ci biir li nga xamante ni mooy sama activité musicale. ak picturale de tous les jours. Mhm. donc association boobu tey. ñun euh, on fait toujours des euh, comment dire suñu concert sax yu ñuy def suñu concert au fait dañuy annoncer toujours le besoin bi nga xamante ni peut-être tey benn wala ñaari daara dina ko am fii Sénégal école yi nga xamante ni ñoom lay liggéeyandool mm-hmm. en France ailleurs au Luxembourg man ñoom damay jéem a def le sorte de sorte que mu am benn genre échange boo xamante comme jumelage jumelage yu concret yoo xamante ne nii bon du man ma koy véhiculer mm-hmm. man comme ci association la nekk mm-hmm. sama aide laa mën a indi créer le lien après je m'en débarrasse. on rappelle aux gens aussi que Baal ma Khadija que que il est en même temps artiste peintre il est excellent. Mhm. Mhm. Euh, am na benn sa exposition bi bi fële woon ca ca Mbour. Mhm. Euh, ça nous avait beaucoup marqué donc euh, booy génne étoile tey mun na nekk si musique mun na nekk tamit si si art c'était juste un petit rappel Khadija. man sama préoccupation mooy ci wàllum bu ñu nee taalibe wax ñu leen dénk mooy sëriñu daalay daaray te en général dañuy gis dañuy réticent trop. ci bépp approche boo xam ne peut-être comprendre wuñ ko wala jëmul trop ci wàllum alxuraan. ba tax na boo leen ñëwee war a bëgg aide. ci ñoom wala bëgg a aider ñi nga xam ne mooy ndongo daara yi ñu leen dénk dañuy xaw a réticent dañ ciy xaw a bañ est-ce que yéen ça a été facile euh, seen euh, ngeen dem waxtaan ak ñoom wax leen tëral leen projet bi nga xam ne moom ngeen bëgg a teg ak ñoom. ak en dehors de ça que am parce que ñoom ñu ngi tegoon nañ benn projet boo xam peut amul suivi bi ci wax. Mm-hmm. mooy le retrait des enfants de la rue. mais est-ce que am ngeen ak ñoom benn link pour suivi projet yi. non man jusqu'à présent man musuma demandé benn aide par rapport yooyu yëpp. Mhm. man li ma di ko def rek toujours mooy damaa dem à la source. donc bañ demee foofu gis nañu réalité yi. Mhm. lu ñu mën ci suñu doole daal def nañ ko quoi. Mhm. donc peut-être un jour euh, dina dem ba àgg ci euh, stade yooyu mais pour pour le moment li nga xamante ne man personnellement ak association bi am na dooleem. mun na ko def et ce sera du concret. Mhm. ñun ci loolu lañu ñu concentré wu. au fait ça veut dire suñu atelier ñuy def def ay concert génn leen xaalis bu leen mën a dimbali ci loolu ñu def ko ci lu concret daal. parce que des fois dossiers yi mun na bëri ngay déposer di def lii wax laa wax la la mais mhm. alors est-ce que dina am quelque chose boo xamante ne ni il y a de l'impact mhm. donc de passage école ISM bu Mbour donc ils ont fait énormément pour ñoom donc oui il y a comme ISM, comme Association Couleur Musique, comme euh, euh des, écoles euh, que je travaille, comme IKL, toutes ces associations yooyu nga xamante ne nii euh, seen lépp ci social la nekk. Mhm. ñoom ñu ngi xool nan la ñu mën a defee pour dimbali. Mbaye mhm. en tout cas ci ci ci ci logique boobu la nekk pour l'instant. Mbaye Gallo waaye. Mm. ma waay. d'accord bi dafa rafetoon. dina way waaw léegi da ngeen a bëgg mu way léegi. non ça dépend de toi yow yaay patron bi fii ñun ñun ay. dañ ñu ngi sa ginnaaw lañ jaay rek dañ lay suivre. Eh, eh, jaay ñu ngi sa ginnaaw lañ jaay loolu décider mooy loolu jaay nga wax loolu lañ jaay décider rek. d'accord waaw dina way. sa eh, décision rek ay décider rek. voilà ñëw na ci aspect bu nga xamante ni bu am solo la mu ci wàllu. waaw jaay wàllu njàng mi. waaye également wàllu euh, yar gi ñi nga xamante ne noonu la ñuy yaree ndaw ñi Khadija dama gis weekend dernier benn euh, benn exemple bu nga xamante ni je pense que bëri ay célébrité wala ay kilifa ci réew mi yu ko war a euh, suivre mhm. il y a une association qui s'appelle Proxime Jeune boo xamante ne mu ngi nekk Médina mhm. samedi passé ils étaient en train de primer les meilleurs élèves de leur localité mhm. te meilleurs élèves yi laaj ma ñan la ñi jël paie waaw c'est-à-dire même ñi jël deuxième amuñu woon prix. Euh, c'était pour inciter les autres euh, jàppale leen ci ñu gën a mën a euh, ñoŋal seen bopp ci ci ci njàng mi mm-hmm. mu doon lu am solo ñu ci nuyu di ci sargal le DG des impôts et domaines monsieur Cheikh Ba mm-hmm. mu mel ni loolu également wax nañ ko mën a def pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi mm-hmm. ñi nekk ci daara yi parce que Sénégal souvent ñu jàng école tubaab dañ di faral di primer mais alxuraan da def xale bu alxuraan fees ci dënnam mu dem jël ay raaya te bu ñëwee ça passe inaperçu. waaw loolu dëgg te loolu moom c'est pas normal de toute façon lii di alxuraan Sénégal on a besoin ñoom ñooy nekk suñu imam ëllëg te je n'imagine pas le Sénégal euh, sans ay imam mm-hmm. donc daara dafa am solo mais seulement li ñuy def ci école publique yi est normal nañ ko def ci daar yi rek. tout cela bien quoi. d'accord il va terminer en beauté avec sa guitare en ñu remercier ñëpp ñu ñu ci suba ak léegi Père Isolo ak Tata merci ci seetaan bi euh, merci beaucoup. Père Ismaël Lolo ah. waaw nee jantal Père la. ak moom ak ñu ngi bi yow la. bàyyi coro transitaire yi sonn nañ de. sonn nañ de transitaire yi. fii jëlee nañ leen seen place bi nañ leen jàppale ñii ñoo yor oto yi bu ñoom oto du dugg ci réew mi jàppale leen transitaires yi Cheikh Ba bëggee naa la du ñàkk tax du ñàkk tax ñu dalal leen ñi ngi leen di nuyu ñoom transitaires yëpp waaye tamit ñi ñu teg loxo ci coowal loolu dox seen diggante ak DP World euh, du ñàkk ñu gën ci ñëwaat ci yeneen yi nañ leen baal transitaires yi waaw ba suba incha allah incha allah en attendant sa invité dina terminer en beauté. Mamadou mais balaa muy dem da nga naan le soleil yéene kaay. le soleil yéene kaay. <laughs> Mamadou on te retrouve demain. ok Ndiaye également on se a à demain Thioro. voilà ñu remercier Badiane Mané ak équipe bi moo àndaloon ci suba ak léegi. Mané jël ma Awa Ndiaye madame Mbaye merci beaucoup merci pour ah, tout. Euh, Pape Sidi on te fait un gros bisou. Basili ñu bàyyi ki nga xamante ne moom mooy. Euh, Baye Gallo mu terminer en beauté lan nga ñuy may. bàyyi galaayoo ou politique qu'est-ce que ah, lu ñuy way. lu la neex lu ma neex. guitare bi dafa rafet woyal rek. kokoriko ginaar sab na diggu njolloor. damay jommeem damay bëgg a waaroo àdduna jaxasoo ba kenn xamatul daal fa mu jëm c'est plus de la politique c'est du mystique bu njëkkaane waaw ginaar da daan fajar sab jigéen sokku njël bay xëy wuti lu mu loolu jeex na fi tey waaw waaw waaw On n'a pas tous les mêmes chances. On n'a pas tous les mêmes droits. On n'a pas tous les mêmes choix. Cocorico. Cocorico. 3 et 4. Cocorico. Cocorico. Merci. Waaw waaw, Serba.